aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeent nit ñi ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafetu seen teewaay seen émission diine ak jamono diine ak jamono ñëwaat tey ci benn sujet d'actualité boo xam ne tey jii nag itam ñëpp a ci yem ndax itam dafa doon loo xam ne mooy ay ci réew mi te moom la ñu jàmbat te procès Karim Wade itam jeex nag verdict bi di ñu joxe ko ci 23 bi ñu génn mu nekkoon loo xamante ni itam xaar bi amoon na nu mu bindoo bañ ko joxe itam am na nu mu bindoo gannaaw gi itam ñu jàpp ne procès bi jeex na waaye débat bi ba léegi mu ngi fi des ñu dal di koy tëj nag juróom-benni atu kaso ak 138 milliards téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards yoo xamante ne ci alamaan la loolu tax nag tey ji itam mu nekkaat débat ci biir dëkk bi loolu itam nekk loo xamante ne Sénégal tàmm na ko waaye ni mu nii bi yoon ndax amul lu ko wutaleek yeneen yi wala boog bu fekkente ne lii am na ëllëg ëllëgu Karim Wade waaye ëllëgu réew mi wàllu justice élegu parti démocratique sénégalais bi nga xamante ni tam ñoo ko tànn comme candidat pour la présidentielle de 2017 tam nekk koo xamante ne condamné nañ ko juróom benn at loolu itam nekkaat beneen débat boo xam dina ko indi ndax ca gannaaw gis nañ lu mel noonu doon am bañ cay wax ay loi d'amnistie ak yu mel noonu ndax lii grâce ak amnistie dina ci dox wala boog nekkul luñ mën a teeru PDS nee na mooy seen candidat te amuñu plan B ma jàpp ne plan B kenn di ko wax xanaa ñàkku den koy jëf te yooyu itam mën na nekk loo xamante ni stratégie politique la ñu bugg cee waxtaan nag ngir gën a gindi askan wi ci nit ñi nga xamante ne acteur lañ ci mbir moomu ku ci nekk am foo yëngu te itam loolu nekk lu sooxal dossier bi ñu fi fii ay nit ñoo xamante ne tey bokk na ci eh, maître Pape Sène mu ngi bokk ci APR maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi fi ak kii di Moussa Balde di directeur général Sodagri bokk ci APR monsieur Balde maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi fi ak monsieur Farba Senghor le ministre Farba Senghor bokk ci parti démocratique sénégalais monsieur Senghor maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi nuyu aussi président Sidy Lamine. Mhm. di ko. Euh, sant bu baax di nuyu itam yéen ñëpp yi nga xam ne yéen a bokk personnel Walfadjri bi ak ñi nga xam ñu ñuy déglu yow aussi di la nuyu bu baax merci jërëjëf ak sama naataango yi ma toogal voilà maître euh, Pape Sène ak euh, Moussa Baldé ñu ngi xaarandi itam kii di monsieur son excellence ancien ambassadeur ancien ministre moom nag moo war a wutu itam kii di maître Adama Fall nga xam ne dafa amoon am empêchement ñu mujj woo maître euh, kii di donc son excellence Cheikh bu Fall ñu ngi koy xaaran mu war a yegsi ci kanam tuuti pour bokk ci débat bi euh, kon ñu ngi gërëm di sant ñëpp di rafetlu seen teewaay ci seen rajo télévision euh, Walfadjri dine ak jamono tey kon ci mbiru procès Karim Wade verdict bi nag balaa ñu koy joxe coow la woon bañ ko joxe coow la gannaaw gi itam di coow loolu itam yëkkatiwaat rek ay kàddu yoo xamante ni ñi daw nañ ko fi wax mooy lañ doon sàkku ñu ne benn procès boo am procès équitable lay nekk procès boo xamante ni itam principe de la légalité de ci tax kon ay laaj yoo xamante ne dañ doon wax naan ndax mën naa am ci procès bu mel nii maître Pape Sène yow mi nga xamante ne acteur nga woon ca njalbeen ba fii mu toll tey jii au la aussi de la politique nga nekk un technicien du droit tey ji est-ce que procès Karim bi bi mu jeexee sa laaj yooyu nit ñi sampo nit ci am ay tiitaange est-ce que yow jàpp nga ne tey procès bi nekk na procès boo xamante ne mën na bokk ci procès yi tax ñu ne yoon mu ngi tegu ci yoon ci biir Sénégal. Euh, jërëjëf Ousmane euh, da nga may euh, baal ma nuyu suma naataango yi ma partagé le plateau bi. Mhm. di monsieur Moussa Ba. Mhm. Balde conseil départemental Kolda. Mhm. di nuyu également monsieur le ministre plateau di amaat mbégte également bokk ak moom plateau pour rek ci waxtaan bi nga xam ne dañ koy bokk ci question d'actualité yi mm. euh, di nuyu également comme ni ma koy faral di defee toujours population commune de Ndondol population département Bambey euh, Ousmane d'abord euh, dañuy sant yàlla suñu borom dañ koy sant bu baax a baax di remercier également kilifa diine yi nekk yépp ci réew mi mm. parce que jàpp naa ne tey bu ñu toogee fii le 27 mars le 26 mars du moins di wax bay fàttaliku 23 mars dañuy sant parce que xam nañ ne ñaan am na Sénégal euh, di féliciter également di ko féliciter di féliciter le premier ministre di féliciter le ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées ci matuwaay yi nga xam ne jël nañu ko ci 23 mars bi nga xam ne moo weesu euh, may rappeler rek ne euh, noonu la munoon demee parce que constitution Sénégal moo teg ci ndoddu président de la république mu aar askan wi aar lépp luy bien ci dëkk bi kon jàpp nañ ne 23 mars quand gis nañu ne président de la république ak gouvernement jël nañ matuwaay yi waroon yëpp pour que sénégalais nekk Sénégal nekk ci jàmm nit ñu nekk ci tranquille ñu war a xëy liggéey dem liggéey euh, ci loolu it euh, ñuy féliciter également le président Wade cas ci li ñu gis avant durant et après le 23 mars parce que avant le 23 mars gis nañu mu def déclaration te ku ko gis it dégg ko dégg nga mu ne dal la woote maanaam la sérénité et le calme gis nañ ko mu def ko avant gis nañ ko it bien avant juste après la veille bi ñuy def seen congrès bi mu woote waat ay militants à l'apaisement ci dal ba mu ne leen sax boo leen ñëwee le 23 mars au tribunal ngeen déglu verdict bi ku nekk nit ñi bi këram ba ngeen déglu sama déclaration après le 23 mars bi dogal bi jibee te nga wax léegi peut-être dinañ ñëwaat ci contenu dogal bi bi mhm. dogal bi jibee ñëwaat ci même déclaration yooyu pour woote nit ñi ñu am ci dal kon loolu ñu toog également ci plateau te duñu ko félicité ci loolu parce que nag Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk di félicité les magistrats de la CREI également moo xam magistrat du parquet moo xam magistrat du siège parce que li nga xam ne moom la peuple sénégalais doon xaar ci ñoom te teg ko ci seen ndodd muy àtte ci askan wi jàpp nañ ne def nañu ko di féliciter tous les avocats moo xam avocat de la partie civile muy état avocat de la défense ñi nga xam ne yëpp participer nañ ci procès bi te avocat li nga xam ne moom mooy cëram ci wàllu àtte mooy leeral leeral ba nga xam ne kay àtte fa mu jëm du doon loo xam ne ni dafay naxsaay wala dafay yoon kon loolu it jàpp nañ ne avocat yi kon en somme ñuy féliciter tout le peuple sénégalais euh, may rappeler rek ne Ousmane dañu nekk ci ñun dañu nekk ci république dañu nekk ci un état de droit boo xam ne nii dafa am lu ñu naan la séparation des pouvoirs séparation des pouvoirs boo ko déggee mooy exécutif bi dafay gouverner législatif bi di légiférer maanaam di jël loi yi justice di euh, kon boo bu amee ñu ñambaas ci it yokk ci indépendance de la justice sénégalaise kon tey bu fekkee ne que dañu dem 23 mars cour de répression de l'enrichissement illicite après huit mois de procès rendre une décision décision boobu ñun ñëpp dañ ci war a tënku waxuñu ne amul ñuy mën a élever ay contestation parce que àtte bu amee ki ñu àtte mën na am sañ-sañ ne moom d'accord ci mm-hmm. mais li ñu war a fàttali war ko xam rek mooy boo nekkee ci réew état de droit bu mel ni Sénégal nekk ci république bu mel ni Sénégal am une justice indépendante bu fekkee d'accord loo ci décision de justice am na anam yu la yoon may pour nga jaar ci mais décision de justice du question boo ci d'accordul da ngay ŋàññi magistrat bi ko bi ko rendre déedéet da ngay def ay violence ci mbedd yi pour wane ne d'accord loo ci déedéet dafa am ay yoon yu lay yoon may ci wàllu lu ñu naan voie de recours te ñu gis ko ci wàllu CREI naam coow li bari woon na CREI 81 effectivement prévoirul appel mais prévoir na lu ñu naan pour en cassation te ñàkk prévoir appel boobu it may fàttali ci askan wi ci sénégalais yi ñuy suivre ne du loo xam ne ni tey président Macky Sall daf ci dugal loxoom mel ni ku ko dindi wala mel ni ku ko sabablu wala mel ni ku ko bëgg daf ko fee fekk muy loi de 81 ñu bindee ko noonu mu ñëw fekk ko fi jël ko teg ko également ci table bi ñu koy appliqué mm-hmm. kon jàpp nañ ne tey daal li ñu mën a jàpp mooy Euh, justice sénégalaise rendre na décision au nom du peuple sénégalais euh, li ñu ci mun a def rek mooy rafetlu ko jàmm ji mu àndal di ñaan it jàmm jooju continuer te xam ne Sénégal ñun te justice également dafa yàgg di def liggéey bi nga xam ne moom la def peut-être particularité procès bi mooy Karim Wade la particularité procès bi mooy ancien ministre la particularité mooy doomu président Abdoulaye Wade la te jàpp naa ne cour spéciale la aussi cour parce que pourvoi bi yaakaar naa waaw dañu constaté kii bi légalité bi rek mais ñoom duñ ci dellusiwaat ci procès ak yooyu looloo ko wutaleeg appel bi waaw effectivement pourvoi mhm. en cassation boo ko gisee maanaam cour cour suprême moo koy atte te mhm. cour suprême bu fa demee presque dootuñu wax waxu CREI yi mhm. parce que loi organique de 2009 moom moo créé la cour suprême donc bi mu créé la cour suprême dafa am ay sañ-sañ yu mu ko jox nan nga koy saisir boo fa demee atte bi naka donc du àttewaat feey maanaam ñuy ñëw di lëñ la nga xam ne moom lañ doon wax yëpp mais dafay xool ndax ñi nga xam ne ñoo doon àtte la ñu dogal tënk nañ ko ci yoon mooy maanaam c'est la juridiction de droit kii àtte àttekat yi moom mooy cour suprême donc loolu également jar nañu leeral ko sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ñu si mais Ousmane ma dolli rek benn mbir aussi parce que peut-être coow li bari na ci fànn boobu mooy mbirum appel bi. xam nga tey bu ñu jëlee rek CREI yi muy juridiction spéciale ñëpp di ŋàññi ne amul appel waroon na am appel. mais dafay mel ni loolu CREI yi rek la xew. te boo xoolee tey ci suñu architecture judiciaire maanaam organisation judiciaire. mën naa la citer ñaari juridiction mais doo fa fekk droit d'appel. benn bi man mii la concerné sama naataango avocat yi mooy la chambre correctionnelle bi jugé avocat yi parce que ñun dañ am li ñu naan privilège de juridiction mm-hmm. tey buy rendre décision da koy rendre en premier et dernier ressort amoon sañ-sañ def appel mm-hmm. mais haute cour de justice également mm-hmm. bi nga xam ne mooy àtte ah ancien ministre yi ci li nga xam ne def nañ ko ci ñaawteef ci seen biir euh, fonction mhm. kooku it boo fa demee ñu àttale te la ca ëpp yëpp ay député la parce que bu ma juumul benn magistrat professionnel rek moo ci nekk li ci des yëpp c'est des magistrats yoo c'est des ñoo xam ne ni assemblée c'est des députés de l'assemblée foofu it bu ñu la fa àttee ba pare doo am sañ-sañu def appel mhm. te gisoon nañu it ñoom le ministre Farba Senghor ñëpp ñoom ñu ne dañu waroon dem haute cour de justice mais bu ñu fa demoon it la ñu fekk CREI la ñuy fekk maanaam ci absence de droit d'appel kon absence de droit d'appel du rek CREI la am mhm. am na haute cour de justice am na également ci chambre correctionnelle bi jugé avocat yi te loolu yoon moo ko def mën nañ ci nag am ay avis partagés mhm. mais dañuy nangu ne it lu yoon def ñu fekk ko fi noonu rek lañ ko mën a appliquer tant que réforme amul ci loolu d'accord maître Pape Sène euh, monsieur le ministre euh, Farba Senghor euh, ñu gis ne kon mbir moomu bañ ko joxe ba tey jii maître Pape Sène souligné na ko maître Abdoulaye Wade euh, mi nga xamante ne un homme d'action la woon waaye gis nañ mu woote jàmm avant woote jàmm après ba noonu itam ñu dégg ne à son rassemblement de vendredi fële ci place de l'Obélisque loolu yëpp mën na wundu ne kon mbir mi euh, li ngeen doon tiit wala lu ngeen doon ragal gis ngeen ne amul ci procès bi kon ba yéen euh, ni mbir mi dogal bi daanu daal nangu ngeen ko te yéen a ngi seet yeneen pexe ci côté politique waaye côté yoon moom ànd ngeen ci mbir mi Euh, maa ngi lay gërëm bu baax mais dama lay yëgal ne la nanguwuñu ko. Mhm. ndax ñun ba ñu commencé ba léegi dañuy wax ne euh, procès bi du procès équitable ndax yow yaakaar naa ne question bi nga posé woon euh, maître Pape Sène mhm. mooy ndax procès bi procès bu équitable la wala déet. Mhm. ñun dañu ne procès bi du procès équitable. pour mu am dafa am ñaari aspect yoo xam ne moom la procès équitable àndal procès bu njëkk mooy. tribunal bi nga xam ne ci la ñuy jugé prévenu bi mooy ki yoon di topp dafa war nekk tribunal bu am ñetti caractéristique bu njëkk mooy mu nekk un tribunal indépendant bi ci tegu mooy mu nekk un tribunal impartial indépendant mooy ah, tribunal bi moom na boppam du mel ni comme CREI yi xam nga CREI yi su defee arrêt de renvoi immédiatement dafay dem jébbal ko président de la république te xam nga ne ku ñu àtte ci tribunaux ordinaire yi loolu amu fa ba pare également euh, gis nga ko sax euh, ki nga xam ne mooy procureur bu njëkk bi Aliou Ndaw ah bi mu wooyee ñoo xam ne gars yaakaar nañ ne warul leen a woo dañ ne ko eh, dañ ko dàq donc xam nga ne loolu soo jaaree ci ñaari aspect yooyu rek da xam ne le tribunal ne pas indépendant deuxième bi ki topp mooy le tribunal mu impartial mooy tribunal bi amul far amul far far làqoo du am mbir moo xam ne magistrat bi koy joxe comme Henri Grégoire Sénégal yëpp gis nañu ko bi muy joxe même moom bi muy joxe verdict bi lox na lu yàgg yàgg yàgg. tu ko gars yi ñoo ko doon jàppale kayit yi pour mu mën a wax mooy assesseur bi mu den lool dem na sax ba baat bi man xàmmeetuñu woon ne moom baatam la te ci waxam da doon kekkantoo ndax nee na terrain yi nekk Touba ak yi nekk yi nekk Kébémer terrain yooyu ñoom bokkul ci. moom duñ ko ko toppee pour que waa Touba ñu kii kat moom ñun laa àndal léegi mais terrain yi nekk Dakar dañ ko toppee donc loolu moo tax ñu ne benn aspect ci kiiwul impartial wul. est-ce que loolu nekkul mooy daa far far làqu rendre euh, bi moom métti rek. voilà non troisième mm. point bi. troisième point bi mooy euh, tribunal bi si boppam. na ko léegi dafa ne ñoom avocats yi suñu leen di jugé dañ dañu am privilège de juridiction. Mm-hmm. privilège de juridiction dafa euh, système boobu dafa am ci réew yëpp la am su demee États-Unis d'Amérique nga dem France nga dem fépp militaires yi su ñu di jugé tey colonels yi ak généraux yi dañ leen di euh, jugé ci tribunal militaire Macky Sall mi tey ji euh, bi ñuy départ deux mille un loon dara léegi mi ngi am huit mille huit milliards bi muy def déclaration bi mu nekkee président dafa déclaré ñu ne ay am na milliards yu bëri moo am na am na ay kër fii ay euh, Canada ay France yooyu ba am ñu ne huit milliards lam am mais ñun bi ñu ko bëggee topp ñoom Pape dañu ne ah bu leen ko wax parce que kii président la da ngeen di bàyyi léegi ba mu jeexal donc loolu mooy privilège de juridiction euh, soo demee également ci constitution bu Sénégal article 101 dafa wax ne premier ministre ak ministre yi ñoom li ñuy def te fekk bi ñu koy def ñoom ñi ngi nekk en fonction di liggéey loolu suñu leen di jugé dañ leen di yóbbu haute cour de justice. bu fekkee li ñu def euh, ci jamono yooyu. crime la dafa ñu nekkoon euh, ci ay jëwriñ. su fekkee ay jëwriñ lañu. buñ leen toppee ci lañ lañ doon. loolu ca jamono yooyu te xam nga dañ waxoon ne moom mooy euh, ministre asamaan seet jaww ji ak suuf si. mais toppuñ ko ci loolu. waaw foofu laa bëgg a ñëw. Mm-hmm. ba tax na suñ koy topp yaakaar nañu ne ci li mu def lañ ko war a topp mm-hmm. donc soo demee ci loi bi muy loi 81 51 du 10 juillet 1900. 81 bi nga xam ne moo taxawal moo taxawal CREI mm. moo taxawal CREI article 7 bi juróom-ñaar bi dafa wax ne euh, ñi am privilège de juridiction ñooñu ak immunité comme député yi su ñu leen di jugé dañ leen di yóbbu haute cour de justice soo demee convention parce que ñun dañuy ratifier instruments nationaux internationaux yëpp mm-hmm. dañuy convention de Mérida 30 nga dem alinéa 2 dafa wax ne euh, képp koo xam dañ lay jugé pour corruption wala pour ay crimes économiques dañ laa war a juger ci dañ la war a jox sa àq yóbbu la ci sa privilège de juridiction donc loolu moo tax ñu ne kon le tribunal la n'est pas un tribunal bu compétent deuxième bi pour ñu am pour ñu am un procès équitable mooy les principes principe d'équité yi principe d'équité yi mooy lu dem présomption de présomption d'innocence mooy comme procureur fii normalement moo war a ñëw ne la lii yaa ko def mais Karim par exemple dañ ko woo mu ñëw mu war a expliquer wu si boppam moom fan la jëlee fan la jëlee alalam dañ dafa am légalité des armes ñi nga xam dañuy jàkkaarloo lu ci kii am kii war na ko am soo demee article 13 ci loi bi 81 51 bu 10 juillet 1981 alors su fekkee ne am na arrêt de renvoi su fekkee am na non lieu foofu ci biir commission d'instruction bi procureur procureur bi man na dal di ne man d'accord ma ci def foofu daal di dem ne d'accord ma ci. daal def recours. waaye su bii nga xamee ne bi nga xamee ne def nañu euh, arrêt de renvoi c'est-à-dire yóbbu Karim ne ko dañ la war a juger ji euh, cour de répression de l'enrichissement illicite Karim amul droit si boppam daal di def recours beneen bi wax ngeen ko léegi euh, ci àdduna bi yëpp même pacte international. bi nga xam ne mooy droit civil ak politique dañuy wax ne kenn ku nekk dañ la war a juger ci instance yi nga xam ne moom la ñuy prévoir mooy première instance mhm. ak deuxième instance ba ba tax na mhm. fii fii ni mu ko waxee léegi dañuy jalgati loolu dañuy jalgati sax dañu jalgati sax comment article trente boobu mhm. alinéa quatre bi dafa wax ne képp ku ñuy juger dañ la war a dañ la war a juger yóbbu la juger la euh, ci nga dem appel. ba pare avocat yi nga xam ne ñoom ñoo lay ñoom ñoo lay défendre. dañ war a nekk ak yow à tout moment. loolu moo tax ñu ne. donc comme fii amul appel kenn du jugé waat jëf yi. duñ wax ne Karim yaa jël lii wala yaa jël lale. mais dañ lay yóbbu cour suprême. cour suprême les faits moom lay ju du ko jugé le droit lay jugé. d' ailleurs. xool lan nañu àttee daal jaar na ci. fi may terminer ki loolu. Mhm. mooy ministre de la justice dafa wax keroog. daf ñu daf ñu daggal àtteel ñàkk parce que dafa ne yow sax loolu junj nga ko léegi. Hmm. ndax dafa ne yéen dañuy ñoom mën nañu dem cour suprême waaye cour suprême droit lay juger. Hmm. mais nañu xam ne droit boobu jugé nañ koo pare parce que euh, parce que euh, 6 février boobu. Hmm. Euh, arrêté bi ñu génne woon bi bi conseil constitutionnel génne woon wax na ci déjà ne euh, CREI yi constitutionnel. donc su ñu demee itam du ñu am leneen. donc cela veut jir que. ñun procès bi ñu gis nii c' est un procès purement politique. d' accord rek Karim Wade xam na ne moom la war a jàkkaarloo candidat la mu ne candidat bi. danaa ko effacé te danaa fayantoog baayam. danaa fayantoog moom danaa fayantoog PDS. Moussa Baldé le ministre Farba Senghor jàpp ne cour bi kon dañ ko taxawal rek euh, wala boog dañ ko appliqué. rien que pour éliminer un candidat rien que itam justice de revanchard nga xam ne day fayantoo yow ci ni mbir mi déroulé ba yegg si fii tey jii est-ce que yow loolu mu wax noonu fees na sa bët wala da nga gis ne rek mbir mi aussi li mu wax ne politique moo ci laxasu moo waral discours bi changé noonu ba yoon mënu ci eh, <coughs> jërëjëf seen maa ngi leen di gërëm di la sant ci invitation bi. sama mbokk natango yi nekk fii. di nuyu téléspectateur Walf TV ak mboolem Sénégal di féliciter suñu président ak suñu gouvernement puisque xam ngeen ni mooy suñu troisième anniversaire ci pouvoir bi te gis nañu jéego yu am solo yu président Macky Sall def ci Sénégal ci te yaakaar bu muy indi ci peuple sénégalais actuellement hmm. euh, euh, li ministre euh, Farba Senghor wax ci mbirum maanaam bugg a éliminer candidat hmm. loolu man pour man en fait ñoom ñoo bëgg a politiser procès Karim <clears throat> parce que Karim man gis bu mu am ba mu mun a tiital benn candidat fi Sénégal waxuma la sax président Macky Sall parce que Karim Wade référence mooy am mooy 2009 la Moussa Samp ndoon defe naa fii élection locale te moom gañewul sax bureau de vote am à mu nekk maire wala président de région donc kooku amul référence politique boo xam ne heure bii mun na tax ba président Macky Sall di bàyyi liggéeyam di di ut ay nu muy defee ay njuuñ laaj pour mun ko éliminer def naa ñoom euh, waa PDS ñoo bugg en tout cas yi ñu teral ci Sénégal pour mun a juger ay doomu sénégalais bugg indi coow politiser affaire bi pour xëy na rëccal seen seen seen seen doom wala seen mbokk wala seen parti euh, li ma ci bëgg a wax mooy <coughs> xam nga ñun dañu décider dëkk ci république république moom dafa am euh, maanaam lu muy doxe dafa am ay charte mooy constitution ak yeneen ak yeneen jumtukaay yoo xam ne daf ñuy permettre par exemple man tey dama jóge sama kër ñëw ba fii kenn agressé wu ma kenn attaqué wu ma parce que dafa am politique loolu nag bu ñu ko naree yàq ci lii après dañuy lakk yàq lépp euh, li am mooy euh, CREI yi du Macky Sall moo ko créé moo ko moo ko fi def depuis jamono Abdou Diouf la ñoom bu ñu xamoon ne juridiction bi baaxul te ñu def douze ans ci pouvoir bi mais ana ñu dindi ko mais ñoom tamit fii lañ ko fekk bàyyi ko fii man de bu ma gisee ku gouverner douze ans te mu gis ni Sénégal fii am na loo xam ne méngoowul ak suñu république mais da nga koy dindi wante kenn dindiw ko ñu ñëw doomu Sénégal mooy Karim nekkoon ministre te CREI yi man defe naa am na ñuy ngañ ñi nu muy doxee maanaam yow yaa war a li nga am mais man je trouve que ñun sax ay père de famille gis nga boo fi toogoon tey sa doom gën alors que yow junni rek nga koy jox mu ñëw indil la benn Rolex mais la première de choses yi ngay def mooy da koy convoquer laaj ko yow noo tax noo def boo am relax je veux dire loolu c'est une question de logique te xaalis boo ko amee maanaam vraiment ci euh, anam yu normal bu ñu la laajee war nga mun a firndeel ni man ni doom di ko wax ci mbedd mi mais juge bu la convoqué mu ne la ah da nga am tel xaalis ci nii enfin dañ gis ne am nga tel tel alal est-ce que mun nga ko prouver je pense que loolu war nga ko mun a prouver donc problème bi defe naa coow bi man jarul am euh, dañu am cours de répression de l'enrichissement illicite maanaam bu état bi gisee ne dafa am koo xam ne li muy dunde walla li muy wane ci alal méngoowul ak moom li muy gañe parce que état bi moo lay fay walla bu la fayul tamit xam na ku lay fay te mun na xam yow ñaata ngay fayeeku par mois donc loolu dafa am jumtukaay muy CREI war nañ la mën a topp laaj la ah yow kay dañu gis ne ni ngay dunde ak li ngay wone ci alal méngoowul ak li ñu lay fay te man maa lay fay xanaa loolu quand même bu amee. Mhm. war nga mun a wax ne ah man de dama nekk actionnaire benn ngandam société lii mooy sama dividende bi année et cetera nga wone mais defe naa loolu posé problème. donc je pense que mhm. euh, li ñu mun a wax mooy. heure bi mhm. procès bi am ni procès bu normal la warul woon indi dañu foog ne en tout cas CREI yi dafa gis ne dafa am koo xam ne war nañ ko mën a laaj fan la amee alalam laaj nañ ko yi cour de répression la mais affaire juridiction la mhm. euh, c'est un citoyen moom jëloon na avocat am mhm. état jël avocat am ñu def procès xam nga man du ma juriste. man gisuma dossier bi en tout cas liiruma ko aw ma jot boobu na naa liggéey. mais man gëm naa ni Sénégal ñi ñu formé. pour liggéey boobu ñoom bu ñu xoolee affaire bi. war nañu mun a wax. Euh, lan war nañu mën a joxe verdict boo xam ne mhm. bu am validité man wóolu naa justice sénégalaise mhm. te def naa verdict bu verdict war nañ ko respecter donc man man loolu la ci dinañ ci dellusiwaat léegi Moussa Baldé maître Pape Sène ci délit yi nga xamante ne dañ ko doon tudd nee nañu toppeetuñ ko délit de corruption ak détournement de deniers publics kon ci enrichissement illicite bi lañ ko topp Moussa Baldé mu ngi doon wax sànq ne boo gañee sa alal ci lu lew buñ la laajee fi nga ko jël war ngeen ko mën a prouver léegi Karim Wade ñu laaj ko alalam ci li nga xamante ni itam moom la yor actuellement mu mel ni kon to détourné wul xaalis deful corruption kon ni mu am est-ce que comme ni ko Moussa Baldé waxee mënul nekk ne aussi dafa jël revenu am di ko multiplier mu nekk ressource ba juraat ay yeneen. jële alalam waaw Ousmane euh, <laughs> effectivement li nga wax noonu d'ailleurs mooy li nga xam ne tey moo waral procès bi xam nga délit enrichissement illicite dafa am benn particularité particularité bi mooy xooluñu loo yor ci sa poche maanaam ni ñu ko ni ñu ko tënkee ci définition bi mooy koo xamee ne que nii dañu la gis ci sa dundin ci àdduna ñu gis ne kat yow la ngay liggéey ak la nga war a mën a gañe ak la ngay gañe dëppoowul ak ni ngay dundee mais loolu bu ñu ko defee constat bi du ñu ñëw rek ne Ousmane yow danga def enrichissement illicite déedéet dañuy ñëw la ne la ñun gis nañ ne kat yow da nga am un train de vie boo xamee ne que nii daal jàpp nañ ne dëppoowul ak li nga war a mën a am ci sa liggéey wala ci say revenu de façon générale parce que revenu mhm. bon salaire mën na baña nekk revenu mhm. mais dañ lay may loolu peut-être duñ ci ñëwaat processus procédure bi dañ lay may mhm. délai boo xam ne da ngay tontu yow yaay indi tontu mhm. c'est-à-dire délai bi noonu lañ ko tëralee du question ne tey jii dañoo ñëw en fait jël benn délit boo xam ne nii dañ ko taaye à sa juste mesure pour s'attaquer à une personne X mhm. loolu li may wax nii tey c'est valable pour le ministre Farba Senghor c'est valable pour man c'est valable pour donc c'est valable pour ñëpp ñi nga xam ne nii tey boo leen gisee rek boo liiree l' article 163 bis da leen diviser. Mhm. kon jàpp naa ne du une loi boo xam ne dañ ko orienté loi bu ñu fi fekk la monsieur euh, Moussa le président Moussa Baldé wax na ko c' est une loi boo xam ne c' est depuis 81 fii lañ ko fekk man dama koy faral di wax ci plateau yi ne loi bi bañ koy móol sax président Macky jàpp naa ne mu ngi nekk ci banc yi di jàng parce que 81 vraiment je pense que dafa nekkoon peut-être au niveau supérieur wala feneen di jàng kon kooku xam nga du moom mooy xool en ces années là. di xool benn loi boo xam ne ni dafa war a am nuñ ko moole pour viser kenn donc li ñu mën a retenir parce que le ministre Farba Senghor am na yu mu wax léegi yoo xam ne que ni ci ak moom ci convention yi ak euh, convention yi sax li ma ciy wax rek Mérida bi muy tudd ak yeneen convention internationale dafay am rek lu muy dëggal ci benn débat boo xam ne nii ñoom dañ ko fi yëkkati woon mooy maanaam ñoom ñëpp dañ dàqoon la délit d'enrichissement illicite mais délit d'enrichissement illicite waruñu ko ak CREI warul mun a am ci réew moo xam ne nii réew de droit mais boo demee tey ci ay Mérida convention Union africaine convention ONU mais da ngay gis ne ñoom dañuy ñaax réew yi ci àdduna bi pour ñu am ay instruments juridiques ak ay instruments judiciaires yoo xam ne que nii dañuy mën a topp ay phénomènes de délinquance financière yoo xam ne lu mel ni enrichissement illicite. dëggal comme c'est le ministre Farba Senghor mooy ñëw viser Mérida dañuy dëggal ñun ci li nga xam ne tey moom mooy combat bi ñuy mëne ak le président Macky Sall mooy combat pour assainir les finances publiques. maanaam li ñu naan la traque des biens supposés mal acquis koo xam ne ni dénkoon nañ la nga rendre compte te ko xam ne ni jàpp nañ aussi dénkoon nañ la te nga am un train de vie boo xam ne nii peut-être euh, tey na xel mais ñu laaj la laaj bi nag da indi ay tontu jàpp naa ne loolu moo am pendant huit mois mais Ousmane li gën a am solo tey parce que bu ñu ñëwee ne waaw bu ñu demee au niveau de la cour suprême maanaam cour suprême déjà presque parce que le ministre Farba Senghor daf ne presque àtte nañu ndax prononcé woon na ci légalité de la CREI may rappeler rek ne non dama lay rappeler ministre bi waxul loolu parce que ministre bi c'est un avocat man avocat la tey arrêt bi nga xam ne moom la ñu rendre le 23 mars arrêt boobu la ñuy attaqué en cassation devant la cour suprême arrêt bi dafa am motivation xam nga décision de justice bu ñu ko rendre dafa am benn architecture bu muy am maanaam y'a ce qu'on appelle la forme te dans le cadre de cet arrêt bi nga xam ne moom la ñu rendre le 23 mars ñëpp gis nañu ne en tout cas man peut-être euh, du ma ancien trop ça fait douze ans que je suis avocat mm-hmm. mais euh, sama petite expérience boobu ma am mm-hmm. c'est la première fois ma gis tey jii li ma lay wax nii boo demoon suba tribunal di nga ko gis une cour athée pour rendre la décision bi nga xam ne moom la athée mu jël di lire toute la motivation considérant que considérant que parce que li ñuy faral di gis loolu ci forme bi li ñuy faral di gis ñun ci suñu ëttu attekaay yi mooy bu ñuy vider délibéré mooy maanaam bu ñuy rendre décision dispositif bi rek la ñuy lire dispositif bi mooy commencé ci fi ñu naan parce ses motifs nga dégg juge bi naan statuant publiquement contrairement maanaam ki ñëwoon pour seet si mbokkam wala ki ñëwoon pour déglu si àtteem buy dem la muy xam mooy la ñu ko topp wala la ko bàyyee mais mënul xam lu ko waral parce que juge du ko ko wax mais dans le procès de Karim Wade bii ak arrêt bi la particularité c'est que muy le ministre Farba Senghor muy man muy monsieur Balde muy képp koo xam ne ni teewoon nga ci salle bi keroog moo xam sax teewuloo fa ndax journalistes yi relayer nañ information bi am nga une idée presque complete de la motivation bi nga xam ne moom la juge bi def en attendant nag ñu am arrêt bi parce que nag arrêt bi euh, bu ma bañul fenn tey li ñu xayma ci li ñu jàpp mooy 172 pages la donc arrêt boobu bu ñu ko amee nag ci la avocat yi mën a jël toog def seen i de défense pour mën a dem déposer seen requête au niveau de la cour suprême parce que fi may wax ak yow def nañu seen déclaration de pourvoi au niveau de la cour d' euh, au niveau de la CREI mhm. mu des léegi nag la requête bi nga xam ne moom la ñu war a présenter à la cour suprême bu ñu am arrêt physiquement pour mun ko def mais loolu rek laa bëggoon rappeler di wax ne que mhm. arrêt bi la ñuy mais ma ñëw Ousmane forme bi ci motivation mais fond bi mhm. parce que dañuy ŋàññi décision bi ku nekk mën nga am sa mais ñun li ñu jàpp mooy bu fekkoon rek politique moo ko lal parce que loolu la le ministre hmm, wax bu fekkoon politique moo ko lal boo gisee arrêt bi wax nga ko léegi dañu relaxer le ministre hmm. euh, Karim Wade du délit de corruption relaxer ko de détournement de deniers publics mais dañu jàpp ne également li ci gën a am solo mooy le parquet spécial dafa demandé woon à que ñu appliquer article 34 te article 34 ma bëgg ci rek def benn précision parce que article 34 dafa am ñaari article dafa am ñaari alinéa hmm. benn bu njëkk bi daf ne bu fekkee ne que peine bi peine bi ñu prévoir prévoir la de la mhm. peine prévue est supérieure à cinq ans mhm. juge bi dafay am faculté maanaam pouvoir faculté lay am pour appliquer 34 wala bañ ko appliquer beneen alinéa bi ñëw ne si la peine prononcée fii dañuy wax prononcée hmm. maanaam ñu nga ca àtte ba hmm. si la peine prononcée est supérieure à cinq ans foofu dafay devenir obligatoire mais pour ban délit la hmm. loolu laay ñëw c'est-à-dire que boo jëlee boo jëlee article 34 mën naa ko sax parce que bon dañu nekk également ci télévision di wax askan wi ban délit non c'est-à-dire code pénal buy prévoir article 34 article 34 ay peine complémentaire la bu koy prévoir da koy prévoir dafa mais loolu laa lay expliquer ni ne la boo jëlee le deuxième alinéa de l'article 34 la peine prononcée daf lay wax ne la si la peine prononcée ëpp na juróomi at maanaam comme bii juróom-benni at juge bi dafay am obligation prononcé ko mais xam nga lan moo ci gën a am solo non xam nga lan moo ci gën a am solo article 35 parce que dañuy lire rek article 34 fàtte article 35 mhm. li tax tey cour CREI yi mënul woon appliquer à monsieur Karim Wade l' article 34 ci 35 la ko jëlee parce que 35 mhm. daf ne bu ñu dekkee ci cas boobu fi nga xam ne bi pour ne ko da ko war a appliquer mhm. dañ ko ne mënu ko appliquer lu dul ci délit bi nga xam ne moom ngay condamné nit ki dafay fekk loi boobu prévoir ko autrement dit tey boo jëlee loi CREI de 53 la loi sur l'enrichissement illicite bi nga xam ne 81 53 moom moo créé le délit définir ko ñu am ko ci suñu code pénal 163 gis ne prévoirul fenn foo xam ne ni dañu ne dañu war a appliquer article 34 par contre bu doon dañu retenir le délit de corruption bu boobaa dañ koy appliquer article 34 parce que ah, peine bi supérieure la ah, à 5 ans donc loolu ne rek mhm. ña doon àtte ak ñi nga bi jubluwuñ ci pour di parce que loolu doon na yomb trop tey ñu appliquer article 34 ñu xëy dañuy gis ne que ces droits civiques dañ koy dafay perdre ces droits civiques et politiques mhm. kon loolu benn firnde rek buy wane boo xamee ne que nii mhm. amul dara lu ko lal ci politique la ca des mhm. mais mooy am nañu ñu ñu relaxé ku mel ni euh, ak boobaa dañ ko bàyyi ku mel ni euh, Mbaye Ndiaye dañ ko bàyyi kon loolu won na la ne également ñi doon àtte la ñuy àtte dañ ko teg rek ci li nga xam ne moom la ñu am ci ay fait appliquer ko ci loi ak li leen seen intime conviction may par rapport à ça ñu jàpp ne kat lii ak lii moo war a am mais bu loolu weesoo également mm-hmm. ci wàllu peine yi mm-hmm. wàllu peine yi dañ ci yokk ki nga xam ne moo fa toggal société société bi sept ans la demandé woon mm-hmm. mais gis nañ ne fii la CREI bi muy rendre arrêt mais ku mel ni Karim Wade six ans la ko tëj ak 138 milliards d'amende ku mel ni Pouye cinq ans lañ ko tëj ku mel ni Dia cinq ans lañ ko tëj te ñun li ñu xam ci suñu wàllu pratique judiciaire maanaam li ñuy wax toujours <laughs> jurisprudence mhm. ci li ñu xam en tout cas man li ma jot a xam ci suma expérience lu mel ni par exemple deniers publics te ñu koy xaw a méngale ak enrichissement illicite ak ay corruption yooyu man li ma ci xam peine yi ma mas a fekkee yépp ak yi nga xam ne taxaw naa plaider ko devant une juridiction pour des gens yoo xam dañu leen a topp pour kon foofu it jàpp nañ ne cour bi doon àtte amul dara lu mu séentu wala amul dara luñ ko yenn ci gannaaw luy tax ñu ñëw ne dañu bëgg a faagagal nit faagagal Karim wadd pour fexe ba du nekk ci langue politique man jàpp naa ne daal nañu ko jàppee ne décision judiciaire la justice sénégalaise moo prononcé wu justice nag décision bu mu rendre rek dafa am ay conséquences ministre Farba Senghor mën naa ko concédeel ne mu gis ci ay conséquence politiques nangul naa ko mais nag day reste une décision de justice rendue au nom du peuple sénégalais du ko génn mhm. maître euh, Pape Sène ministre euh, Farba kon mbir mi mel na li leer na parce que itam ñu bëri wala boog euh, politiciens yi ramanoon nañ affaire bi à la politique ba ñëpp jàpp ne politique kese la li muy visé mooy Karim Wade candidat te tey ñu gis ne buñ ko tëjee parce que yéen Macky Sall ngeen di joxoon mais dañoo gis tey ne kon du yéene Macky Sall mais liggéeyu justice la boo xamante ni nit war na mën a gis ne technique droit lim laaj ak texte yi moom lañu appliqué. non euh, xam nga soo ko seetloo ba seetlu ko da ngay xam ne procès bi Karim dañ ko bëggoon a tëj rek ndax bi ñuy commencé yow 2013 janvier 2013 Souleymane Téliko mu nekk secretaire général bu cour d'appel bu Dakar dem na jàkkaarloo ak président Macky Sall. bi ñu def ouverture cours et tribunaux ñëpp. kàngami tribunaux yëpp taxaw président cour suprême taxaw ñu tànn ko ne ko waxal ak moom daf ko wax ne ko CREI bii nga gis nii du garantir procès juste et équitable ci la wax expliquer mooy principe d'équité yi ma la waxoon léegi noonu mm-hmm. ay présomption d'innocence ak yooyu yëpp daf naa loolu Sénégal yëpp dégg nañ ko mm-hmm. donc magistrat yi mag yi nekk Sénégal ñëpp nangu nañ ne CREI jubut yow dégg ki nga xam ne mooy Alioune Tine xam nga Alioune Tine àndut ak ñun. mais àndut ak kenn kay moom ci droit de l'homme waaw waaw dama lay a wax dama laa rek. Hmm. ñoom euh, homme ñi nga xam ne ñoom défenseur droit de l'homme la. Alioune Tine dégg nga Amnesty International ak Amnesty Sénégal Seydi Gassama dégg nga tam ministre bi nekk ministre la justice muy FIDH moom itam waxoon na. ne CREI yi du loo xam ne méngoowul ak àqu doomu aadama maître Assane Dioma Ndiaye itam Sénégal yëpp dégg nañ ko mooy ligue sénégalaise de des droits de l'homme même waa APR am na ñu ne sax ànduñu ci biir APR doxalin bi xam nañ àndu ji gis nga yoon nag soo déggee ñu koy wax procédure yi ak li yoon wax àq nañ ko jox doomu aadama yi loolu moo tax ñu koy wax parce que loolu moo tax parce que Sénégal ñoom dañu yaakaar ne seen juridiction bopp bopp lañ war a def mais Mérida boobu muy wax Mérida ñun waa PDS sax d'abord mosuñoo contre ni ne ànduñu ci délit d'enrichissement illicite parce que délit d'enrichissement illicite comme ni mu ko waxee délit connexe la ndax Mérida corruption moo ko tax a jóg mais dañ soo demee ci je crois article vingt bi dañ ci dugal délit d'enrichissement illicite ñu ne recommandation dañu recommander pays yi ne suñ demee nañu yokk délit d'enrichissement illicite mais ñun li ñu contre mooy mu am benn tribunal boo xam ne tribunal spécial la dañ ko créer uniquement pour muy topp ñooñu te jaarale yuñ ko ci yoon parce que Karim Wade bi muy wax dafa am quatre grande infractions économiques yu am ñi nga dégg ñu leen jàpp yépp ñu nekk ay fonctionnaires nekk fonction publique première inflation mooy détournement de deniers publics donc ñun dañu yaakaar ne wax na ko nee na Kanibar kenn toppewu ko détournement de deniers publics mhm. moo doon inspection généraux d'État yi dem def seen rapport daal de Karim yow lii yaa ko jëlee fii jël nga milliard bi wala jël nga cinq cent mille yi kon lii danga nga ko war a delloo wala ñu tëj la <coughs> toppawuñ ko dara ci yorinam moom toppawuñ ko ci loolu waaw créé yi daal moom enrichissement illicite non attends lañ ko toppee voilà topp moo leen ko toppee mhm. donc mhm. beneen bi ñoom bi ñu toppee Karim xam nga loi créé bi moom gis na ko article diis bi lu wax dafa wax ne commission d'instruction bi instruction ne doit pas excéder yow gis na ko warta passé juróom benn weer ñoom ñu dem passé li ko juróom benn weer lu tax loolu <coughs> dañu dem ba bi wóolutu seen bopp ñu ne il faut ñu wuti déli déli de corruption ci la ñu dugal ci fin bi Alburi Ndaw mu dem créer les quarante sept milliards yi nga xam ne tey jii je crois que li nga xam ne mooy cour bi dindi na ko sànni ko fële loolu mu dindi sànn nag moom moo yàq seen article 34 boobu ndaxte su fekkoon ne amoon na délit boobu délit de corruption mooy délit kon article 34 bi ak 35 boobu muy wax day dugg. kon du ci seen du ci seen koy jël. du ci seen coobare lañ ko du ci seen coobare kon Karim mm. dañ koy jël mu perte droit civil am ay droit civique am mm. mais loolu yéen mënu lenk dara parce que corruption parce que corruption amu fa ndax Albouri li mu li ko taxoon a am amul donc délit yu mag yi mooy délit corruption bu ànd ak. souvent blanchiment. parce que délit ba dafa ànd ak blanchiment. mooy mu jël xaay bu ñuy rawale ko fi ñuy wax paradis fiscaux fiscaux mooy ay réew yoo xam ne lu ñu fa dugal man na raw donc Karim toppee wuñ ko détournement. corruption moo tax kenn tëju ko dégg nga toppee wuñ ko sax recel mooy nit sàcc di ko jël jox ko donc délit bi ma lay wax ne délit connexe la soo demee si euh, ñoom loolu ñu yàgg a wax muy Maputo bu ñuy wax ak. ak effectivement Mérida ñoom ñëpp am na enrichissement illicite mais ay délits yoo xam ne ay délits connexes la. donc dama la bëgg expliquer ne la. Mhm. Euh, ñun li ñu leen di wax mooy CREI amul ci àddina bi amul France amul États-Unis amul Allemagne amul itali benn réew la dese woon ci àddina boo ko amoon moo doon euh, Niger te réew. ko fële xam nga ñun ñoom dañu fàtte ne. Sénégal xëyul rek juste gëm juste Sénégal xëyul rek jóg am juste propre amul ci benn réew. mais lii yéen bëgg ngeen ko parce que bàyyi ngeen ko fi ba mu nekk fi 12 ans. non dama la bëgg expliquer ne la. Mhm. fii mu toll nii soo demee France États-Unis dafa am lu ñu tuddee les lois désuètes mooy ay yoo xam ne dañuy dem ba kenn du leen jëfandikoo mais kenn du leen dindi moom xam na loolu y a des lois désuètes moom droit la def. xam na moom avocat la. mais taxul ñu tere nit jëfandikoo ko. kenn dañuy nekk mais kenn du leen jëfandikoo. loi euh, bi bi créé vice président du Sénégal. Mm-hmm. mais loi baa ce que Macky Sall am na obligation ne ko Macky Sall demal nga nommer vice président du mais bu ko buggee aussi mën na ko def. exactement mais su ko buggul du ko def. waaw kon lii la buggoon moom donc attends ah. donc Macky Sall dama la bëggoon ne Macky Sall buggoon. Mm-hmm. génnewaat créé yi pour am ñu jàpp moo tax mu def ko. Mm-hmm. mais loi bi mu buggul da ko fiy denc ba heure amee opportunité. peut-être mu dindi ko. donc c'est-à-dire loolu su ngeen di su su ñuy wax ñun rek. dañuy wax sunu diggante ak yàlla amu leen dara lu ngeen ñu conseillé. xam nga li fi li fi leer ba leer fi mooy. Mhm. li ma la bu fa ma bëgg ñaar fi may terminer. waaw mooy gis nga réew yëpp day xam na ko. dafa am ay instruments c'est-à-dire juridiques internationaux yoo xam ne ci la ñëpp wékku ci la ñëpp wékku déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. xam na ko moom dafa consacré. dafa consacrer euh, le procès équitable ah xam na ko convention européenne des droits de l'homme xam na ko le pacte international ah relatif au droits civils et politiques daf ko consacré dégg nga ko même soo demee France soo demee Europe cour européenne des droits dafa systématiser systématiser mu procès mooy procès boo xam ne dafa jaar ci yoon te dañu sàmm doomu aadama yéen ñëpp d'accord nañu Sénégal ne mhm. yéen sàmm leen àqu doomu aadama xam li des moom mooy mhm. combat politique ñi dañu war a xeex ñoom jàkkaarloo ñoom lu ñu lu ñu am jël marabu bi muy wax noonu mhm. foofu laa bëgg a terminer président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañ ne taalibe sëriñ bi la fan yële passé dégg nañ ñu ne porte parole sëriñ bi nee na sëriñ bi mosu ci dugal gémmiñam man nag keroog maa toog ma dikke toog wax di toog ñu sone voilà ma dikkee jël téléphone bi ne ko président sëriñ bi ñaan na nee na loo jàppoon bàyyi ba mu waxtaan ak Macky sàll man maa toog ma dikkee wax ko donc. Ablaye kon loolu moo indi ñu éliminé kii bi Ablaye Wade taalibe la. Mm-hmm. donc cër ba mu joxoon démb sëriñ bi ba taxoon keroog bi ñu ko wooyee bi mu ko nomee mu ñëw sukk ci kanam euh, xalif général des Mourides yeesalaat njébbalam. li tax mu ñëw tabax la grande mosquée de Dakar bii te Serigne Cheikh Amadou Bamba moo ne def naa ñetti fan yoo xam ne ci ndakaaru mënuma leen a nett li li ma daj fii ci ci guddi yooyu mu sagal ko ci nawleem mais Abdoulaye Wade wàccoon na ak ñoom léegi nag ñu ngi ciy dellusiwaat léegi parce que boobu il faut ñu waxtaanaat ci waaw Ah, Balde parce que sànq yaa doon wax ne eh, bu fekkee éliminer un candidat rek loolu nañ ko teg ci suuf parce que eh, Karim amul référence politique waaye lu mel ni est-ce que mayatul léegi Karim war déférence politique bi ñu ngi koy dénk parti ba ndax ñu ngi ko def candidat parti démocratique sénégalais est-ce que ci côté boobu aussi gis nga ne am na gain politique boo xamante ne jaroon na ko wala yéen da ngeen rendre justice rek ci li peuple bi soxla mbiru politique bi da ngeen ko ci bëgg a génn. xam nga <coughs> référence politique loolu euh, mënul nekk lu artificiel. Euh, xam nga Sénégal euh, maanaam boo amee ñaari avocat ñetti nit ñi mën a dem ci télé di wax rek dañuy di coow dañuy foog ne yow da nga am mbooloo loolu moom léegi yomb na fii ci dëkk bi Karim man ci li ma gëm li ma xam amul référence politique référence politique am en tout cas 2009 la commencé bëgg dem élection locale te gis nañu lu mu fa am Macky Sall balaa mu nekk candidat il tey maire de Fatick je veux dire dafa am jaar-jaar jaar-jaar boobu Karim Wade amu ko ñoom sax xam nañ ko. mais moom bi tàmbalewul ci jaar-jaar. non xam nga xam nga nan ngay. Sénégal Sénégal li ñu xam moy Karim Wade dañ ko condamné te li ñu ko condamné en tout cas justice sénégalaise li euh, charte yi ñu tëral yëpp dañ ko respecté. ba gis ne li mu def baaxul ñu condamné ko ku ñu condamné nag ah man <laughs> ça m'étonnerait que loolu jox la référence ah parce que liñ ko condamné ci man en tout cas gëm naa ni ñi liggéey ci CREI ak euh, ñi ñi ñi joxe verdict bi ay sénégalais yu nga xam ne dañu jàng li ñuy def dañu mën li ñuy def te dañu indépendant ñoo joxe te sénégalais yu bëri maanaam quatre vingt pour cent des Sénégalais loolu lañ gëm ñun dañu war a sant yàlla tey ci niveau bi ñu egg tey ci ci affaire droit euh, état de droit maanaam xam nga réew euh, li mu wax sànq defar réew construction réew yombul quoi étape yu bëri la ñu war a jaar tey egg nañ ci benn étape boo xam ne pour man dafa am solo parce que tey fonctionnaire bi gën a ndaw ak bi gën a kawe xam na ni buñ la bu la nguur Sénégal denkee alal walla dara boo defee naka su noonu nga nekk ministre walla nga nekk doomu président suba mun nañ la jàpp tëj la walla en tout cas euh, teg teg euh, kii ci sa ndox mais léegi ñoom dañ ne hmm? loolu d'accord nañ ci ñoom mais pourquoi Karim pas d' autres personnes am na ñoo ah, xam ne jàpp nañ ne dañ leen couvrir dégguñ leen ci mbir mi lu tax non il n' était pas seul déjà ñu déjà lu tax ñeneen yi waaw waaw ah, il n' pas seul te aussi bu ñu yokkamti parce que justice dafa am nu muy dox ñoom xëy na heure bi dossier bi lañu lañ doon jàng lañ doon def mais suba ministre de la justice wax na ko nee na la poursuite euh, le processus se poursuit donc ça veut dire que yemuñu fii kii xëy na moom la commencé wala en tout cas bokk na ci ñi njëkk ñëw ci euh, lamb bi buñ <laughs> ñu ko mënee waxal loolu. Mm-hmm. mais suba ginnaaw suba dina am ñeneen. Mm-hmm. te Macky président Macky dafa dafa dafa yokk encore suñu possibilité di aar suñu réew suñu alal réew. parce que après CREI dafa moom moo créé léegi OFNAC OFNAC boobu moom dafa ñëw dooleel li mu bugg mooy Sénégal ñu nekk réew. boo xam ne alalu Sénégal kenn du ko war a boole ak alalam parce que xam nga dafa yomb nga dëgg waaye euh, nit ki warsakam la walla euh, nga sa papa nekk président mu lay may xaalis ngay <laughs> non mais loolu. parce que don yooyu dañ ne buñ ko toppee du ñu yem ci Karim kese bu dee may rek. non xam nga moom euh, dañ ko laaj mu justifier am na ni mu justifier te gis nañ ne CREI en tout cas. pour bi d'accordul ci loolu justification yi mu joxe baaxul bëgg a xamal nit ñi ne li ma bëgg a wax mooy dañu war a xam ne boo bu ñu la denkee dara yow maanaam nga nekk ministre ngay voyager jël avion boo xam ne yow yaa ko fay man maa ko fay ñun ñëpp ñoo ko fay nga dem fenn après booy liggéey ngay naan man en tout cas yi ma joxoon ci lii ak lee man maa ko moom loolu dafay poser problème il faut que mu dëñ donc defe naa suñu gouvernement ci loolu la nekk mooy setal ni ñuy liggéeye yokk état de droit maintenant politiquement boo xoolee man li ma jaaxal ci ñoom raisonnement ñoom ministre Farba Senghor dañuy ut ay cause de nullité mooy jéem a fexe ba gëmloo nit ñi ne procès bi ni mu doxee baaxul dafa am njuuj jaaj et cetera mais xalaatuñu benn yoon. ne gëmlooñ ni seen seen euh, seen partisan bi. nekkul coupable non loolu xalaatuñu ko ñoom ñoom li ñuy xalaat xam nga loolu déjà c'est un problème. nga am procès man comprendre naa nga fay avocat moom muy xool nan lay def ba procès bi bañ am. wala leneen wala leneen. ñoom amoon nañ seen i avocat amoon nañ ko. Mhm. loolu bu avocat Karim Wade génnee di naan euh, di di nga ñi créé yi di def leen man dinaa ko comprendre parce que moom loolu mooy liggéeyam. dañ ko fay wala dafa bëgg Karim mu mu koy défendre muy muy constitué wu muy muy défendre mais un citoyen ordinaire mais heure bi moom yow bu dee état du Sénégal dafa jàpp ne wala en tout cas citoyen Sénégal dañ jàpp ne kii dafa am délit mais man ma préoccupation que est-ce loolu dëgg la wala du dëgg est-ce def na délit bi wala defu ko du ma fi nekk di naan noo waruñu woon jaar fii def nañ lii wala lii la wala la est-ce que def na délit wala deful délit kon dañ ko ramener daal sur le terrain politique ñoo ko fa indi pour des raisons simples c'est que effectivement man je pense que ñaari ñaari ñaari ñaari mbir la moo fa nekk dafa am ñoo xam ne xëy na dañu xam bu procès Karim demee ba egg affaire bi dina continuer te mun na am mu dal seen kaw am na ñoo xam ne seen bopp la ñuy sauvé seen bopp lañ bëgg a sauvé d'accord <laughs> loolu am na ci uh-huh. am na ñeneen ñoo xam ne xëy na euh, euh, gëm nañu peut-être ne Karim Wade Euh, mun na nekk seen candidat comme ni ñu ko waxee et cetera mm-hmm. mais loolu yëpp donc politique bi. Mm-hmm. ñoom ñoo ko fi indi. man ci sama xalaat mooy mm-hmm. président Macky Sall. président de la République du Sénégal moom su ko sañoon tey benn sénégalais bo du am problème ak justice. mais suñu prison yi kenn du fa tëdd. mais loolu dafay méngoo peut-être. guñu foofu ñun ay nit kese lañ. donc Sénégal. chaque jour waa Kolda waa waa waa Dakar ba fu ne. dina am ñoo xam ne. dinañu jalgati yoon. ñu am problème ak yoon mais bu ñu leen tëjee. bu bu bu seen peine jeexee. ñu delloo leen ci société bi. ñu continuer donc loolu moo tax hmm. dama bëgg jeexal mooy. Hmm. dégg naa ñu bari ñuy coow ñu naan nañu wax Macky Sall mu baal Karim. Hmm. mais loolu quand même man loolu mënu ma ko comprendre mais makki Sall heure bi sax bu bëggoon nan lay baale Karim. yow dañu la jàpp justice mais bu ko baalee mais ça veut dire que heure bi mais ñi xam ne ñu ngi xaar procès Sénégal yëpp. tamit donc loolu xam nga dangay laaj président aussi lu mu mën am na am na sañ mais am na aussi lu mu mënul c'est-à-dire boo xasee ba dugg ci justice bu mënee baal keneen mënul baal Karim non mais je dire boo demee ba ñu jàpp la di la war a atte loolu président amatu fa wax buñ ko condamné moom am na grâce boo xam mën na ko loolu aussi dafa am yoon yu ñu tëral Sénégal. ay charte pour ay charte yoo xam ne buñ ci waa PED waa afin e mm-hmm. en tout cas ñi ko bëgg ak moom boppam. buñ ci tënkoo dina waaw mën nañ ko def d'accord mën na am président Macky Sall ci mm-hmm. mbaxayam euh, def ci. Moussa balde maître euh, Pape Sène keroog sama naataango Moustapha Diop bu Walf Quotidien doon na wax ne. Euh, réew mi jot na tey ñu xoolaat système am d'une manière parce que bu ñu demee ba tëj Karim Wade ci ay sociétés yoo xam ne da koo taxawal te ñu jàpp ne société wu ak yoon ci ay notaire ak ñeneen ñoo xamante ci wàllu yoon ñoo commande bi mu bind ko ba ñu taxawal ko est-ce a yem ci Karim te looloo tax nit que dañoo dem ca ceppaandaw la bàyyi fi nga am foofu la mbir mi soosoo. waaw Ousmane xam nga débat boobu dégg naa ñu koy agité ñu ne mbir mi dafa mel ni ci Karim rek lañ ko orienté. Mm-hmm. mais boo xoolee procès bii nga xam ne moom la ñu rendre arrêt bi 23 mars peut-être ñi ci bëgg a gis Karim rek ñoo ciy gis Karim mais Diassé nit Mbaye Ndiaye nit la dañ ko doon topp Pouye nit la dañ ko doon topp ak boobaa nit la ñooñu ñëpp a fa comparaître taxaw bi ba Bourgi taxaw na ñu atte ko ak ñi nga xam ne sax nekkuñu fi dañ leen atte kon jàpp naa ne déjà rek pour premier bi nga xam ne premier procès bi nga xam ne moom la ñu ubbi du Karim rek lañ ci atte atte nañ ci Karim Wade atte ci ak Agboba atte ci Pouye atte ci Bibo Bourgi atte ci ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni sax nekkuñu fi mais ba fi may wax ak yow nii le ministre Abdoulaye Baldé il a été inculpé fi may wax ak yow nii le procès de bu Ndiaye war na ubbi te ministre de la justice yëf yi yemul fii c'est-à-dire que CREI yi dafay continuer di def liggéeyam mais précision bi ma bëggoon def foofu rek mooy il faut également ñu xam ne CREI yi dafa war a def liggéeyam dafa war a continuer mais bu ñu jàpp ne rek CREI yi tey ku mu jàppul ne ràpp ci kaso bi rek ubbiwul dossier contre yow. parce que CREI yi dafay inculper nit. may la contrôle judiciaire wala mu may la liberté wala mu placer la su mandat de dépôt ñett yooyu rek moo fi mën a am bu ñu la présenter devant la commission d'instruction c'est-à-dire ñett rek moo ci mun a am soit commission d'instruction mo d'abord au niveau du procureur procureur spécial à à son sax mën na ne moom gisul dara bàyyi la foofa lay nga CREI parce que dem nga au premier stade des poursuites ci procureur spécial mais boo jégee procureur spécial ñëw ba mu yóbbu la commission d'instruction mais mën nañu la inculper may la liberté provisoire comme ni ñu def Abdoulaye Baldé mën nañu la inculper placer la su mandat de dépôt comme ni ñu defoon euh, Karim Wade def ko également Bibo Bourgi def ko Mbaye Ndiaye ba par la suite la ñenn ñi am liberté provisoire kon CREI yi dina continuer liggéeyam mais ñu jàpp ne rek CREI yi même buy continuer liggéeyam mën na am mu jàpp ay nit mën na am également mu bàyyi ay nit liberté provisoire mais ñun la nam namm ci CREI yi ak fa mu jëm du rek jàpp nit ki téye ko mais ñu dem ba comme lu mel nii Sénégal justice saytu na ay faits yoo xam ne nii résultat bi lii la ña ñu doon topp def nañu xayrun ñu àtte leen ci li nga xam ne anam yooyu la yoon wax defuñu sénégalais yi xam ne defuñu parce que nag bu ñuy commencé ci tuuma rek la ñuy commencé donc egg nag ci bàyyi walla ci jàpp kon jàpp naa ne justice sénégalaise loolu lañ ko sant bi ñu tegu mooy dañu tudd léegi euh, président Balde dafa tudd effectivement affaire libéralité yi. Mm-hmm. mais ñu gis ne également dafa indi benn polémique. mais xam nga dégg naa benn borom xam-xam di wax ne keroog bi vingt 23 mars dama doon déglu souvent intervention yi en direct. Mm-hmm. mais daf ne Sénégal dañu am benn. moom daf ko jaaxal bu mbir ne teel rek ñëpp dañuy daw di wax les gens ñu jël di recul pour xool li nga xam ne mooy texte yi. parce que ñu ngi naan waaw liberté yi léegi Sénégal parce que damay dégg ku mel ni ñoom ministre Farba Senghor ñu ne léegi Sénégal ku fi mayeeti dañuy tere ku maye. mais ah, loolu non mais li may dégg. mais loi waxul loolu man xam naa loi bi booba yow xam nga ko ñëw c'est-à-dire léegi ah. boo mayee rek mën nañ la jàpp maanaam dañuy bëgg gëmloo sénégalais yi ne avec la décision bi CREI yi rendre te ñu wax ne que ci ci ci yenn motivation yi ñu nekkat Euh, monsieur Karim Wade li nga xam ne moom lañ doon wax ci parc automobile ci oto yi nga xam ne moom la am mënuñu nangu nekk du enrichissement mayel la ñu ne waa léegi Sénégal ku ñu may rek dañu lay jàpp demewul noonu xam nga ñun dañu nekk ay africain nekk ay sénégalais et puis dañu am ay valeur cardinale suñu société dafa am lu ko wundu mooy maanaam teranga d'ailleurs le Sénégal est un pays de la teranga teranga mooy Ousmane damay am bokk ak yow nga am bés ma ñëw teew def ci sama teranga ma gis la également am ak yow kóllëre yëkkati ci sama alal jox la loolu kenn bañu ko ci Sénégal mais gis nga texte bi nga xam ne mooy wax loolu article 163 lim ci wax sax dafa leer. Mhm. pour te dire que boo déggee tubaab lire ko di nga xam ne texte bi créé euh, délit d'enrichissement illicite dàqul maye mais li mu ci wax ci wàllu. daf ne parce que dañu njëkk liir lire premier alinéa bi premier alinéa bi en fait troisième alinéa bi. Euh, euh, ou quatrième daf ne l'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen maanaam yow boo bëggee setal sa bopp ci délit enregistrement illicite façon preuve bu ne mën nga ko indi xam nga loolu bu ci loi yemee rek jaxasoo dana am parce que tey kon Ousmane bu ñu koy topp wala monsieur Balde ah mais day ñëw rek ne man dañ ma may toog foofu ah législateur bi nga xam ne nag ki nga xam ne moo doon defar loi bi toog xalaat ne ah am na lu ñu war a leeral moo tax mu def dernier alinéa mu ne du moins quatrième alinéa cinquième alinéa mu ne xam nga tout fois moom ci ci ci ci ci tubaab boo ko déggee rek mooy maanaam a ah, am na lu loo xam ne nii. la seule preuve la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas ne suffit pas. à justifier de cette origine licite. mooy maanaam li muy dàq mooy ah ñu ne Ousmane kat kaay wuyu sëñ Ousmane kaay wuyu ci eh, CREI yi. sëñ Ousmane ñu ne ko jàpp nañ ne kat sa dundin bi ngay dund dëppoowul ak yow li nga xam ne moom la ñu wax ne moom nga war a mën a am dañ lay laaj léegi nga justifier ko Ousmane ne rek moom ci benn page man dañ maa may lëpp loolu la dàq loolu la dàq seul la seule liberalité mhm. la seule libéralité c'est-à-dire une seule libéralité mënul nekk un moyen de preuve ci yan anam lañ la maye ci yan anam ci ban voilà c'est xam nga Ousmane tey dàquñu Ousmane ñu woo ko <laughs> wala ñu woo monsieur Balde wala monsieur Senghor mu yor ñaari oto wala sax yor benn oto foo ko jëlee mu génne ne oto bi kat damaa yoroon benn 15 millions Ousmane Sène ñëw may ma dix millions muy vingt cinq ma jënd oto 25 millions loolu xel mën na ko nangu mais li kenn mënul nangu mooy tey ñu woole ci CREI yi nga ñëw rek bëgg na yow sa am am yëpp li ñu la jox dañu la ko may looloo tax législateur bi def li ñu naan garde fou Sénégal dañoo nekk réewu teranga ma leeral ko fi dàquñu may. am na ay charte daal teg mhm. mooy dañu évoquer le problème de la grâce. effectivement monsieur Baldé wax na ko xam nga aussi il faut ñuy séquencer mbir yi xam nga dama wax léegi ci bi may door te defuma ko dama ko def parce que xamoon naa ne dinañ fi jëm. dama leen wax ne séparation des pouvoirs xam nga séparation de pouvoirs dafa am exécutif am législatif am judiciaire. li ñu doon wax nii yëpp léegi ci waxu libéralité législatif bi la moo ko def. Mhm. du kenn du exécutif bi mais. justice àtte na mais justice bu àttee ba pare te loolu yoonu Sénégal moo ko dëggal constitution Sénégal moom ay sañ-sañ président de la du sax ci Karim Wade rek dañ ko fee fekk te ba Sénégal de Sénégal ba léegi gis nañ ne veille euh, fête de l'indépendance mhm. président day gracier ay sénégalais mhm. veille fin d'année président day gracier sénégalais ak yeneen fête yoo xam ne nuyu am importance euh, président de la mën na jël un décret pour gracier ay sénégalais yoo xam ne dañoo amoon problème ak yoon kooku pouvoir boo xam ne ni constitution bi moo ko may président te ba léegi dafa am donc kon loolu jàpp nañ ne lu président la mais nag président de la république amul pouvoir dugg ci na justice doxee pour wax ne justice fii nga war a jaar jaar fii parce que man lii laa bëgg te loolu nag ñu wax ko fii président mhm. Macky Sall ci wàllu CREI bi doxalewul noonu taxawewul noonu mhm. léegi nag bés bu waxam jotee ci li ko constitution may ci wàllu grâce dana ko def mais may rappeler rek ne en droit fi ñu toll tey fi ñuy wax nii pourvoi en cassation boobu dafay nekk un obstacle juridique pour que président Macky Sall mën a maye grâce léegi nag bu ñu demee ba cour de suprême addu ñëpp addu ba ñu xam fi yëf yi féete ñu ne kat cour suprême kase na parce que cour suprême bu kase dañu war a delluwaat mais bu fekkee cour suprême dëggal na ne kat pourvoi bi baaxul kon léegi dañuy jàpp ne atte boobu dafay dëggu su boobaa nag ah, président Macky Sall dafay am sañ-sañ loola nag du man maa ko koy dicté du président Balde du président Farba Senghor mais ñun de am nañu njort. Mhm. ne président Macky Sall président ba Moussa wax na ko léegi. Mhm. Mhm. man de am naa njort ne bu lëpp bu yëpp toogee moom mu toog. waxuma la Karim Wade mais mën naa na mu doon def di baale. Mhm. ay centaine de sénégalais des centaines de sénégalais dina ko defaat te Karim Wade mën na cee bokk parce que sénégalais ñoom ñëpp yoreelu ko dara. man gëm naa loolu. te ñu jàpp itam ci grâce boobu itam du tax condamnation bi effacé wu te loolu dina posé waat. waaw loolu it également du du moom moo ko bëgg xam nga ne naa la léegi rek ku nekk danga nga parce que nag du ñu la may benn nga jël lépp. maanaam tu ne peux pas avoir le beurre l'argent du et la fermière moom grâce lañ ko dañ ko euh, constitution daf ko mën nga baale mën nga waaye nag ki doon defar loi bi daf ko ne boo jéggalee la ngay jéggale des conséquences maanaam pen bi nga xam ne moom la waroon tëdd rek nga ko mën a jéggal mais délit bi ñu ko doon topp ca la ñu ko condamné maanaam mu nekk une condamnation ñu jàpp ne kat kii def na dara loola yow mënoo koo effacer amnistie daal moo ko amnistie parce que loi xam nga mooy lima ma wax léegi ne la mm. euh, lépp dañ ko prévoir mais am na beneen sañ-sañ bu ñu ko may boo xam ne ni am na nag fu mu koy jaarale du moom loi d'amnistie moom loi dañ koy voter donc mën na également sabablu ñu dem au niveau de l'Assemblée voter une loi d'amnistie pour amnistier les faits bu ñuy amnistie du ñu amnistier nit ki mais faits yi la ñuy amnistier alors que grâce nit ki la ñuy grâce moo tax amnistie conséquence bi mooy dafay effacer la nga xam ne moom moo nekkoon ci réhabilitation mmh. nit mën nañ ko àtte ñu dawal ay at ñu xool ne ate bi wax dëgg yàlla peut-être amoon na loo xam ne nii xamuñu ko ci woon dem ne ni ñu réhabilité ko réhabilitation boobu dafay permettre nit ki mu jotaat ay sañ-sañam yëpp pour mun a nekkaat koo xam ne nii Ousmane wala président Baldé wala ministre Barham Sekone amatul sax sañ-sañ wax ne defoon na donc loolu moo ci am te loolu nag ay instruments juridiques yu ñu fi fekk la waaw mais nag ñu nangul président Macky Sall sañ-sañam moom munul dugg ci lépp te loolu xam na ko te loolu lay doxee depuis bi CREI yi commencé ba léegi loolu également il faut ñu dëggal ko. pour la séparation des le ministre Farba Senghor ci séparation des pouvoirs boobu kon waxoon ko doon laaj ndax buñ tëjee Karim peut-être du yéene Macky Sall waaye yoon moo def liggéeyam te yoon def liggéeyam Macky Sall am nak euh, yéene ak mbaax ne baal na Karim te yéen candidat seen candidat mooy Karim Wade euh, est-ce bu fekkonte ne tey tollu nañ foofu tem gracier leen ne lu ngeen mën a bañ yaakaar naa ci peine bi nga xamante ne juróom-benn at lu bëri la ci candidat mais mën nga ma may rek ma relever ñaari point fii. rapidement waaw ñëw. waaw parce que xam nga euh, pour kii euh, monsieur Balde. Ousmane Moussa Balde waaw. Moussa Balde. Mhm. xam nga moo soulevé woon question libéralité yi. Mhm. mooy maye. mooy nga jël nga maye. Mhm. en effet euh, ni ni mu ko. noonu la libéralité bi rek doyut. mais ñëpp dëgg nañ fii Macky Sall bi nga ko laajee ne ko yow dañ ne am nga ay huit milliards. dafa ne Ablaye Wade moo ma ko may. te bi ñu demee ci Grégoire muy président wu CREI bi moom bi ñu nee kër yi président dafa ne sama kër yi këru ndononte la yaa ji dafa jox na ku jigéen ki France man ma jox ko dafa yaay eh, amul droit may ko ko nga président ne man en tant que président am na benn buur bu ma may ma jël ko dugal ko ci ci compte Karim bind këyit ñëw andi mu ne non non non may amul may ne suffit pas <coughs> may ne suffit pas mooy may doyul mën nga indi yeneen preuve parce que yeneen yi mën na ci andi ay preuve <coughs> mais ñàkkul benn boo xam ne ak maye la donc loolu laa ko bëgg wax ne ko euh, ñoom seen problème mooy deux poids deux mesures beneen bi da nga wax ne ñun dañ bëgg a su suñu ay mbir rek non est-ce que nekkul président moom bu demee ba euh, war a rendre compte moom peut dina mën a justifier mais pour le moment moom dafa am li ñu wax immunité non non président dafa ne man maa mayee nee na moom kër gi moom moo ko may. non président Macky Sall ne Abdoulaye moo ko may. Mhm. moom peut-être mun na justifier parce que. dañ ne moom dafa président moo ko may. Mhm. xam nga loolu la. Mhm. lu tax mu nangu. président may ko te président du mën a may doomam moom laa la bëgg a laaj. peut ci sart yi. xel nanguwul loolu doon souligné sànq dina ko. mais su dee loolu privilège de juridiction bi mu am ba kenn du ko tudd. pourquoi immunité non privilège de juridiction. Mhm. pour le moment immunité la am na immunité mhm. il faut que sax texte bi dañ ne. c'est ah, ah, en mhm. immunité. et privilège de juridiction ñoom ñaar lañ boole. moom xam ne loolu. donc lu tax moom mu bëgg a bénéficier immunité am Karim Wade bi nga xam ne am na privilège de juridiction. non moom waaye moom mooy justice bi justice. non non xam nga justice bi. ah kon yow jàpp nga parce que maître mu ngi doon leeral léegi ne tant que yoon a ngi def liggéeyam bu parewul ba léegi sañ-sañam tàmbali ci grâce ak yooyu moom amu ci. xam nga dafa am ñaari yëf. Hmm. dafa am justice sénégalaise boo xam ne ñu dañ ko gëm mooy li fi nekkoon daaw mooy ordonnance soixante cinquante six bu mille neuf cent soixante la mu waxoon ñu répété ko en mille neuf cent quatre vingt quatre muy quatre donc dix 19 du 2 février 1984 ñu répété waat ko en 2014 muy 2014 26 du 3 novembre 2014 ordonnancement muy ab autre cour suprême euh, cour d'assises cour d'appel tribunaux tribunaux régionaux tribunaux départementaux tribunaux du travail loolu ñun dañu si ànd ne loolu mooy tribunal mooy yoon mais bële dafay nekk loo xam ne Macky moo ko créé ci coobare moom moo ko jiite ci loolu la ñu àndul pour répondre yow sa ah. question bi pour ñëw fii pour ñëw ci sa bos. kon da nga jàpp ne justice bi nekkul justice bu moom boppam parce que. président moom déedéet CREI lañ laa ne CREI moomul boppam ndax CREI su bindee këyit ba pare gis nga ko ci loi bi nee na arrêt de renvoi bi immédiatement lañ ci bind. Macky Sall yow liir nga loolu. c'est pas l'arrêt de renvoi ah. non dafa ne arrêt de renvoi. arrêt de renvoi ko defee ba pare non ah, condamnation bi. su condamnation bi dama hmm. jum condamnation bi suñ ko condamné immédiatement. da koy rendre compte immédiatement lañu bind. Mhm. donc dama ne la. kon mën na influer ñu def wala ñu ñàkk a def. waaw mais yow gisoo fi euh, Aliou ndaw ñu ñu ñu dàq ko parce que dafa woote ku war ta woo. Mhm. non loolu moom Sénégal yëpp bokk nañ naw ak àdduna bi nee nañ CREI n'est pas une juridiction indépendante. dama la bëgg wax ne la. Mhm. kii da nga bëgg a yàq liggéeyam parce que ti soo nee exception ak nullité du am mi ngi mel ni nga ne bu ñu liggéeyati avocats si ñaari yëf la ñuy liggéey. benn yëf bu njëkk bi avocat ut loolu. non avocat yëpp dama lay wax li mu wax sax dafa leer. moom def ne techniciens yi moom ñoom avocat yi ñoo koy def. mais politiciens yi warul nekk seen liggéey. ah mais non du liggéeyu politiciens yi. parce que biir tribunal bi le prévenu kañ fay toog mhm. avocat moo ko fay toogal. Mhm. avocat moo koy kaasal. Ah. waaye ñi nga xam ne fekk wi ñu ko jibti dañuy déglu war nañu xam lan moo xew ci biir su su toon loolu yow kon doo ñëwoo fii. Mhm. dafa dañuy renvoyer fële. beneen bi yow da nga wax ne ensuite que mënoon nañu que que que yéen que dañu li ñu waroon a teg euh, Karim dañ ko wàññi. cour bi moo ko wàññi. waaw dafa dafa décision waaw da nga ne. du ñun yow doy yow yow yow yow da ne da nga bëgg a war ne foofu war nañ fi ak yërma waaw dañ dañ ko wàññi parce que. dafa mel ni mag yi moom moo leen moo ko wàññil dama la bëgg wax ne la foofu interprété interprétation dama dama bëgg mu leer si mu leer si nit ñi mm-hmm. yow yow loi bi mooy loi bi mooy 163 article 163 bis boobu ngay wax noonu bu mm-hmm. wax affaire condamnation bi mm-hmm. dafa wax ne juróomi at lay commencé bi gën a néew ba fukki at maximum maximum dafa wax ne maximum yow demuñu maximum wax nga ko mais demuñu minimum waaye xaw nañ wàcce tuuti mais bul fàtte ne dafa ànd ak amende loi bi dafa ne amande bi dañ lay amande lu toll li ñu yaakaar ne moom nga moom lañ lay toppee wala mën nañ koo doubler loolu loi bi wax. ñoom dañu dañoo duble fële. dañoo doubler ci amende cent xam nga soo déggee cent trente mhm. mooy cent neuf yi ñuy toppee euh, Karim wàdd ñoom moom la ñu doubler donc dañoo dem fële ba mu sës fii ñu xaw a yolomal tuuti. Mhm. loolu cour bi def léegi pour pour li ngay wax xam ñoom bi ñu koy topp déggoon nga fi ko Latif Coulibaly déggoon nga fi Dansoko ñu ne quatre mille quatre mille milliards Dansoko ne am na benn compte bu am euh, mille huit cent xaw ma milliards ak bu ak beneen bu am sept cent cinquante milliards déggoon nga ko bi bi ñu demee ñu déparé ñu ne six cent quatre-vingt-quatorze milliards moom lañu ñu yóbboon commission d'instruction bi ñu demee ba excédé six mois yi te loolu loi bi da koo bañ parce que dafa ne mënu koo excéder la bind. mise en demeure yi. Mm-hmm. mu nee na mënu ko excéder bi mu ko de dañu dem jëli ñu ne compte bi boobu. quatre-vingt-dix-neuf milliards. xam loolu la waxoon. Mm-hmm. donc kon ñu ngi presque huit cent milliards. Mm-hmm. bi mu génnee commission d'instruction bi dem ci cour bi cent dix-sept milliards moo fa dem cent dix-sept milliards yooyu amoon na quarante-sept milliards yoo xam ne. dañu ne 46 milliards yi moo doon li ñu bëggoon toppee corruption bi. mooy mooy kontu nañ ko turee léegi kontu alburi ndaw bi. kontu <laughs> kontu alburi ndaw boobu naax saay moom lañ ko bëggoon toppee. xam nga rek cour bi jëndi ko mu naaw mu mu des mu des ñaata soixante-dix milliards à peu près. ko toppee président tribunal moo wax de Henri Grégoire mu ne bi ñu bi jëlee conte un milliard deux cent. bi papa wax ne moo ko may bu nekk euh, Monaco nee na ñu jël assurance bi mu defoon nee na xaaj bi mu commencé woon am moom te loolu dinaa ci ñëwaat xaaj bi mu am ci nekk ci kontam yëpp ñu ne neuf cinq millions la ñu gis ko ak kër papaam yi ñu jël ñaari kër papaam yi ñuy jël ak ak terrain yi ñuy jël ak moom deux cent xaw millions yuy fekk euh, ci ci kontam mm-hmm. bi ñu boolantee loolu yëpp mu ne quatre milliards la et plus donc Euh, li nga xam ne moo nekk ci société yi nga xam ne personne morale lañu bi boo jiitee ko ak jaaseeg ak Mamadou Pouy moom mooy 64 milliards yi ci des yow loi bi lu wax ci droit de propriété ak lan la wax ci ci acte notarié mooy le notaire il est cru jusqu'à inscription de faux notaire li mu wax kenn kàddu mënu ko dindi même soo taxawee tribunal ngay wax leneen naa notaire bi li wax du loolu moom xam na ne. mais le notaire ne maîtrise pas les paiements. waaw waaw waaw attends rek. notaire mënul maîtriser les paiements dama laaj. dama laaj est-ce que cadre notaire. cadre notaire wax mënu ko dindi. il est cru jusqu'à instruction de faux da nga koy dem topp ko tribunal te léegi ñu ne léegi propriété boobu loolu loolu loolu ñooñu moom ñu ne eh ndeysaan Karim moo ko moom donc man am na benn investisseur bu ma benn nit. Mhm. mu ne maa ma ne Sénégal damaa bañ a ñëw investir. ndax su ma investir ëllëg dañ xanaa lii ma yore nii yow yaa ko moom donc il y a une remise en cause du droit de propriété qui est très grave pour les l'investissement au Sénégal kon am na incidence donc am na incidence alors bu rëy dama leen bëgg wax ne leen gis nga procès bi nii amul dara loo xam ne jaar na ci na ci yoon non mu ne wax rek parce que tam nit ki loo ko bañ-bañ soo buggee sa sa liggéey sell wala sa togg sell da nga toggee ci ci loo xam ne ci nga war a toggee su fekkoon ne Macky Sall dafa jël Karim yóbbu ko ci tribunaux ordinaires yi ñun tribunaux yi nga xam ne ci la ñu gëm donc nous on est d'accord mais mënuloo jël Karim Wade nga yóbbu ko ci tribunal boo xam ne yow waroo ko fa woon a nga juger ko pare léegi nga bugg nit ñi nit ñi ñoom ñoom ñu ànd ak yow. d'accord Moussa Baldé. am nañ ko président mooy def mooy dindi ci wàllu CREI yi teg ci itam sax am nañu dem benn sax ah, bu bëgguloon condamné sax day condamné ndax gis nañ ambassadeur France wax ci loolu itam nekkaat beneen cas boo xamante ne ñëwaat na ci domaine bi loolu nga xam ne implication nit ñu ñuy tudd te ñu waxoon indépendance ak séparation des pouvoirs loolu est-ce que teeyul xëy aussi ci wàllu waaw xam nga dama bëgg aussi ñëwaat ci benn affaire yi muy wax parce que nga ñu ne fi CREI di naan ñun ak Niger defe naa ñoom ñoo ñoo ci des Niger Niger jeex na mais loolu Sénégal on est un état souverain ñun dañuy xool nu ñuy terale suñu sart ak suñu mu méngoo ak suñu aada wax naa ni sànq suñu aada suñu religion suñu diine gis ma kenn ku nga ngañi bu sa doom ñibbisee sa kër mu yor benn téléphone boo xam ne yow wër na li mënoo ko jënd nga laaj ko mais sama doom foo ko amee te affaire u maye bi man waxuma amul maye de mais sa doom bu la waxee man Ousmane moom may téléphone bi mais li ngay def njëkk def mooy woo Ousmane laaj ko sama doom nee na yaa ko may iPhone 6 xaw ma 5 est-ce que dëgg la bu dee wax nga mayoo ko wala nga expliquer loo xam ne man gëmuma ko mais bu sanction lay def sama loolu je veux ñun dañ dañ war a xool li ak suñu aada di ko def te maa ngi rappeler aussi CREI yi ñoom fekk nañ ko fii fukki ak ak ñaar mosuñ ci wax dara wax ñu baaxul baax na parce que te moom def na lapsus benn lapsus mu ne Macky Sall mooy justice xam nga loolu xëy na seen jamono la xewoon mooy président day nekk ci benn mbooloo wala benn meeting di naan diw kat damay damay dañ koy jàpp wala diw damay wax ñu libéré ko. mais président Macky Sall aussi nee na am na dossier yoo xam ne ciy teg tànk. waaw ah, man de loolu dégguma ko man. li ma xam mooy président makisaal président Macky dossier d'audit yu ci loxoom mais dossier judiciaire président Macky Sall. du fa yegg waru fa yegg sax. dossier la nit ñi réclame nañu euh, hmm. nga il faut que ministre Farba ministre euh, Farba Senghor il faut que mun nangu ne réew bi mu euh, suñu réew mu ngi changé dafa am rupture rupture mooy justice dafa nekk justice même bu dee président mooy nommé mais bu nommé nit ki. mais président moo ma nommé maître de conf université mais est-ce que am na sañ-sañ bu ñu délibéré examen mu ñëw mu ne examen bi baaxul wala kii waroon na am mais moom mooy président de la même façon de la magistrature gis nañu limogé Alioune Ndao ci euh, non mais audience am na bu dee yow dañu la nommé ngay liggéey bu dee ñi la nommé gis nañu ni ngay liggéey ah voilà non attention c'est-à-dire que attention cest à ñi leen nommé man heure bi exemple bi ma joxe sànq mhm. mais recteur de l'université de Dakar bu gisee ne dafa am benn jàngalekat xam nga professeur université par décret la ñu koy nommé gis nañu benn jàngalekat boo xam ne nu muy jàngalee dëppoowul parce que recteur quand même bu ko joxee rectorat bi parce que moom ci la bokk bu bind ne ko kii moom yaa ko nommé woon professeur d'université mais ni muy defee baaxul te enquête wane ne baaxul mun nañ ko dindi je veux man li ma bëgg wax sénégalais yi <clears throat> suñu réew ñun dañu am quand système d' abord d' éducation boo xam ne gëm nañ ni baax na président Macky Sall moom du juge par moom ingénieur géologue la. kon daal séparation des pouvoirs kenn war a avocat la mhm. kii euh, am na profession. Mhm. man li ma gëm ni mooy Sénégal de la même façon bu ñu defee examen joxe résultat mun nga wax ne mer naa wala am na sax ay étudiants yu ñëw di naan ah man prof bi ni ma corrigé neexuma mais kenn sañul dem di leen wax en tout cas ni ngeen di defee baaxul juge bi dañ dafa jàng mu def ay concours ñu joxo ko mu egg fu mu egg man gëm naa ni Sénégal juge boobu bu defee jugement un citoyen lambda boo xam ne jàngul droit comme man deful yenn nekkul avocat waxuma amul sañ-sañ ne gë wax ne xëy na neexu ko wala li am en tout cas mer na ci wala leneen mhm. mais amul amoon na bi sañ-sañ di naan euh, verdict bi dëppawul ak yoon parce que jàngul dossier bi li ma bëggoon wax mooy bi mu ngeen ñee créé fii mu ne Sénégal rek dese et cetera mais États-Unis moom bokk na ci référence état de droit mais peine de mort am na fa amnistie d'accord ci parce que wax na sànq amnistie d'accordul créé mhm. amnistie d'accordul peine de mort organisation droit de l'homme yu bari d'accord ñu peine de mort mais États-Unis ñoom dañu gëm ne heure bi ci seen dëkk peine de mort dafa am état ñoom dañ ne dañ koy def parce que li ñuy du état yëpp de non xam na mais état ñi ko def mhm. état yi ko def ñoom gëm nañu heure bi seen état soxla na loolu moo dëppoo moom moo dëppoo ak seen seen cité non ñu ngi koy mhm. xeex man bañu ma Euh, amnistie waa ñeneen ñu ne d'accord ñu ak CREI ah. mhm. seen point de vue la ñu xeex ko mhm. ba benn jour bu ñu convaincre ñi ko que yi dañ ko war a dindi ba ñoo ñu am conviction boobu ñu dindi ko mhm. mais ma xam ne baax na parce que euh, loolu moo peut-être moo dëppoo ak ak yoon mais tant que egguñu foofu yi mu ngi fii yi li muy laaj man pour man amul benn problème gis nañuy euh, maître moom ak nu muy dundee di jël ay jet privé di wane ay oto yoo xam ne vraiment France ak ñi ko am bariwul fii ci Ndakaaru Njaay bi ñu woo ko juge woo ko mu ne ko ah waxu sax wala dama ko ne ah man li ma gis sax dafa bari est-ce que mën nga ma wax noo ko amee mais quand même loolu yomb na quand même d'accord boo ko boo boo boo indiwee ay firnde ne mhm. yow yaa ko moom kenn du ko yeg sax mu ñu ñu ñu yoon du la topp mais bu dee nag Euh, jaarul ak yoon àndul ak yoon mënoo prouver ne yow yaa ko moom te aussi il faut que ñu xam ne Sénégal nga nekk ministre alors que avant kenn gisula ci benn référence comme quoi danga nga créer ay société da nga nekk lii ak lee jékki-jékki trois ans nga am compétence yooyu yëpp war a am ay société war a am xaalis bu bari loolu sax xam nañu déjà jar nañu lay laaj te Sénégal heure boobu demande sociale la woon c'est-à-dire yi mhm. ñoo bugg ñoo wax ne ah ñun kat suñu dëkk bi bariwuñu xaalis am ñu pétrole amuñu or am nañu or wante taxu ko bari mhm. donc suñu deniers publics yi mhm. maanaam xaalis sénégalais yi bu ñu la ko dénkee loolu deniers publics ko deniers publics d'accord non léegi en tout cas ku ñu ku ñu ku ñu jox deniers publics jox leen dombal tànk ak responsabilité d'accord yoon bëgg na euh, reddition des comptes. Moussa Baldé ñu leen ci dellusiwaat léegi kon maître Pape Sène Moussa Baldé na ko ne demande sociale la woon Euh, justice bu aussi buy rendre de koy rendre au nom du peuple tey est-ce que am nga conviction que euh, vraiment li ngeen di rendre comme verdict nekkoon na nekk na lu méngoo ak vraiment ak nit leen doon la non Ousmane dinaa la rectifier mhm. du ma ne li ñuy rendre ñun ne mhm. li justice rendre d'une manière parce que en tant que kii laa lay laa lay kii man technicien du droit mais non non non non non loolu nekkul ci boppu sénégalais yi dama ne justice moo rendre waaw man bu ma koy wax moom li nga nekk avocat moo tax mais non xam nga xam nga Ousmane ñun dafa am lu ñu tàggate ci bu décision de justice tombée mhm. c'est-à-dire décision de justice kenn du ko commenter ci plateau kooku quand même ñun jàngal nañ ñu ko mën nga contre àndoo ak juge bi mais da ngay def voie de recours te man jàpp naa ne tey même avocat yi nga xamee ne contre monsieur Karim ba fi may wax ak yow nii tey kenn mënu la cee wax moyen de cassation bu ñu war a soulever parce que gisaguñu la motivation de l'arrêt complète dégg nañ ko jël nañ ay notes peut-être mais bala ñu ciy mën a egg ñoom il faut arrêt bi disponible ñu mun a xool arrêt bi ñu ko motiver commencé nag teg teg seen ay moyens de cassation parce que li ma rek déclaration rek lañ mën a def d'ailleurs loi bi daf leen di différeel sax le dépôt de la requête bu ñu jotee que ñu étudier voilà bu ñu ko jotee mhm. kon fii mënuñu fi nekk mais li ñu mën a jàpp mooy rek dañuy am jàngat ci décision bi parce que mhm. peine am na yaa une peine ferme peine demande peine de prison jàngat bi la ñuy def te jàngat bi rek lañ mën a def mais Ousmane euh, dañu wax yi euh, ñuy wax euh, même président Balde sax wax na ko léegi mais man damay faral di wax ne te loolu dama ko gëm te moo am y a aucune organisation judiciaire parfaite au monde amul te dinaa la ci jox firnde dinaa la ci jox firnde xam nga le prés le ministre Farba jóge na ci ordonnance de 60 nga xam ne tey dépassé nañ ko parce que tey bu ñuy wax euh, loi organique cour suprême on parle de la loi de 2008 mm, waaw on parle de la loi de 2008 non je veux dire xam nga 2014 léegi non non mooy euh, la loi organique bi nga xam ne moo créé cour suprême même suy am ay réformes aussi mais loi boobu mooy nekk ne moom daf ñu jëlee ci ordonnance 60 mais ba ñëw ci loi organique de 2008 may fàttali rek ne ba fi may wax ak yow nii tey am na réforme bu rëy boo xam ne ni def nañ ko ci wàllu juridiction ordinaire yi muy wax de droit commun yi pour te dire tey juridiction yi depuis 84 muy tribunal régional muy tribunal départemental moom la ñuy fonctionner mais def nañ évaluation gis ne tey doxalinu tribunal régional ak tribunal départemental répondre tul ci aspiration sénégalais yi ci en matière de justice moo tax tey dañuy dem ci li ñu naan tribunaux de grande instance et tribunaux de première instance loolu mooy dëggal rek ne même bu dee dañuy ŋàññi créy yi ñun waxuñu ne CREI yi lépp ci baax mais dañu ne CREI yi quand ci anam yi nga xam ne moom lañ ko fi fekke te ay doomu Sénégal parce que laaluñu ci dara xam nga ñun ban fan lan moo ñu doon mën a gérer tey ñu ñëw ñëw rek au pouvoir jël CREI yi woo suñuy expert avocat yi borom xam-xam yi màcc ci wàllu finance wàllu droit yëpp ñu tëj leen ne leen dañoo bëgg ngeen xoolalaat ñu la loi de 81 orienté ko ba telle sorte que lañ ca bëgg dinañ ko am mais président Macky Sall laalul virgule ci loi sur la CREI na mu ko jëlee de façon brute noonu la ñëw teg ko ñu àtte ko maintenant euh, euh, procès boo gis jàngat la CREI yi indiwaat nañ ko mais dinañ ci def ay jàngat mais loolu bonalul CREI taxul également CREI yi mën a ñàkk a permettre un procès juste équitable parce que bu ñu wax procès juste et ki nga xam ne tey sañ-sañam yëpp dañ ko koy jox ci wàllu àtte mooy da ngay am say avocat yoon yi nga war a jaar dañ la koy jaarale délai bi ñu la war a jox dañ la koy jox amul dara luñ ci violé mais nag xam nga lan lañ mënul ah, non xam nga non loolu laa bëgg a ñëw xam nga lan lañ mënul non xam nga lan lañ mënul xam nga lan lañ mënul xam nga sax lan moo dul yoon mm-hmm. nga jël benn loi boo xam ne ni dafa am nu ñu ko tege yow nga ñëw bëgg caa yokk lu ca amul walla dind ca lu ca am loolu moo dul yoon tey jii droit d'appel même bu fekkee ne ñun ñëpp nangu nañ ne droit d'appel dafa war a am parce que mooy li dëppoo ak àdduna loolu nangu nañ mais bu ci nekkul mënoo ko cee parce que noonu lañ ko fekkee kon dama bëgg a wax rek ne non dama bëgg a nee appel xam nga et puis une contradiction ci ñoom li ñu bëgg parce que le ministre Farba Senghor dafay wax souvent tantôt mu ne droit commun tantôt ñu ne haute cour de justice mm-hmm. mais haute cour de justice bi ngeen bëgg mais haute amul appel kon yéen seen problème du manque de droit parce que bu doon loolu la du ngeen daw dem une juridiction spéciale bi non non non moom la ñu bañ non non non la la CREI est indépendante même la haute cour de justice c'est une juridiction spéciale te loolu ma bëgg wax rek doo ko fekk ci énumération organisation judiciaire comme ni nga fa dul fekk CREI taxul CREI ñàkk am léegi li ma bëggoon wax également mooy euh, affaire <laughs> instruction poursuite yi ba ci jugement bi mais c'est normal te loolu moo lay won ne la justice n'est pas statique li tubaab naan justice statique wul mooy du ñëw rek ñu ne la on le poursuit pour cent milliards par exemple mais ñu passé phase de poursuite phase d'instruction phase de jugement ñu indilaat ñu six cent milliards loolu dafay wane ne amul benn travail de d'investigation ak d'intelligence bu ñu def loolu te ba justice amee ba léegi en tout cas man li ma xam ci sama wàllu liggéey mooy même devant les juridictions ordinaires juge d'instruction toujours poursuite initiale yi montant yi nga xam ne moom la ñuy déparé ci détournement de deniers publics dafay évoluer dafay évoluer aussi bien au niveau du juge d'instruction que devant la juridiction de jugement mën na yokk mën na wàññeeku mais amul benn montant boo xam ne da koy déparer sauf cas extrême mais donc ñun li ñu gis tey ci CREI dañ koy rafetlu mooy maanaam wane nañu ne quand même ci dossier ñoom Karim Wade bi am na benn gëstu am na benn travail scientifique benn travail bu sérieux boo xam ne nii cour bi dans sa globalité a commencé par la poursuite jusqu'au jugement def nañu ko parce que loolu moo koy firndeel la ca tegu mooy ma jeexale foofu rek Ousmane nga may ma wax na acte notarié nee na acte effectivement <laughs> monsieur le ministre man avocat laa xam naa bu baax ne un acte notarié dafay am valeur c'est-à-dire mënuñu ko combattre que par une inscription de faux mais procès bi le débat c'était pas la validité la régularité de acte notarié du loolu débat bi non non bi c'est-à-dire c'est un débat boo xam ne ni au pénal la ñu gis ne am na koo xamee ne que nii gis nañu ne ci këyit ay société turu Ousmane na ci nekk turu président Baldé ci nekk mais ñu gis ne loolu la ko lal yëpp. mais noo ko prouvé non loolu laa la ñu nekk. on est devant le ko lal yëpp. mais devant le juge pénal benn système la boo xam ne par exemple système de euh, comme ni ñu ko waxee léegi prête-nom mais un notaire mënul gis loolu un notaire li nga ko jox loolu rek la mën a. mais bu ay citoyen sénégalais taxawee. parce que kenn wax loowu leen ko ñoom ñoo ko wax man mii prête non laa woon ci telle société loolu un juge correctionnel da koy jël en compte. maanaam sama tur lañ ci def waaye moom CREI yi daf ko nekk donc nekkuñu ci. nekkuñu ci terrain boo xam ne dañuy apprécier de la validité de d'un acte notarié ba ñuy opposer l'inscription que dañ ko door dañ ko wax ci ndorteel. Mm-hmm. xam nga boo xoolee tey. politique yi président Macky di teg ci wàllu bonne gouvernance ci wàllu transparence ak wàllu setal ci ni ñuy yore parce que président Balla daf ko wax léegi gis nga dañoo déparé ci traque des biens mal acquis rek ñu ne ah peut-être kat kon mën nañu sax nangul ñoom ministre Farba Senghor ne kat dañ doon def ay règlement mais président Balla wax na ko léegi ba ñu engagé la euh, traque bien biens mal acquis fan lañ jëm tey dañoo dem ci la création de l'OFNAC mais nag dafay am lu muy indi loo xam ne nii boo ko xoolee dafay am benn cohérence bu muy indi ak lii CREI di def tey parce que Ousmane. gis nga topp nit bala muy gën a neex te loolu lañu peut-être deful woon. ci ba fa sama gars yi nekk ba fa ñeneen ñi nekk aussi mooy mais bu ñu lay dénk Ousmane tey booy dugg ci kër xanaa di nga xam la nga fay fekk. parce que yow bu fekkee nit daf lay luye kër nga dugg fa xamoo loo fa fekk booy génn amul sañ-sañ ne la ñu def état. des lieux kon loolu mooy liggéeyu OFNAC nag tey ni ko président Macky Sall jële mooy képp koo xam ne ni ordinateur de dépense nga mooy mu ngi mel ni man ordinateur de dépense la parce que commune euh, maire de commune la président Balde noonu wala nga nekk par exemple euh, koo xam ne da ngay exécuter de dépenses en tout cas en tout cas daal li nga xam ne moom ngay yore mat na un milliard jëm kaw foofu peut-être dinaa ci exclure sama parce que aw ma budget bu mat un <laughs> nga war a dem def déclaration de patrimoine déclaration boobu mooy lu ñuy wax état des lieux de départ parce que Ousmane bu ñu xamee ne kat moom bi ñu koy fal bi ñu koy jox ndomb tànk bi bi muy yom direction bi yore na benn oto x x5 na le mais bés bu demee bay jébal lengey ka koy saytu dafay am sax yombal parce que dafay am un point de départ kon loolu benn cohérence bu président Macky Sall indi la ci won sénégalais yi ne leen politique bii may indi d'assainissement des finances publiques ak de lutte contre la délinquance financière dama ko gëm. bu gëmuloon du ko def. yéen a ngi ci ay mécanismes yoo xam ne bu àggee peut-être euh, dootu leen soxla sax ay créer ak yu mel noonu. mais ci njalbeen bi bala ñu yegg ci foofu nga xam ne intervention président ni ko ministre Farba Senghor souligné woon sànq ne teg na loxoom ci ay dossiers yooyu aussi am na précision yoo xamante ne laaj na ko waaw am lu ma bëggoon eggale parce que effectivement tey suñu suwee bu ñu tey ñun bés fi demee ba fiy jógee yàlla dina am mais yàlla na yéex maanaam ñu bàyyi fi réew moo xam ne nii réew moo xam ne nii wax dëgg yàlla administration bi dafay am nu muy doxe ba phénomène yu mel nii dootuñu ko gis parce que nag kenn kenn tey amul woon maanaam li ñuy def nii yëpp mënoon na ñàkk bu fekkoon ne par exemple tey fekk nañu une administration boo xam ne nii comme ni ko président Macky Sall tey am na ay mécanismes de contrôle yoo xam ne que ni da koy mën a def de façon très fiable comme lu mel of nag pour permettre lu mel noonu. li ñuy wax ci wàllu maanaam li muy wax ne que am na ay dossiers yu mu yore mais il faut ñu def la part de choses président Macky Sall munul te deful jël tànkam teg ko ci ay dossiers. pouvoir hmm. la mu mën mooy parce que te loolu it li may wax rek yoon. lu mu la mayul sañ-sañ mënoo ko naam mooy président de la république mais nag am na loo xam ne ni mënu ko bu ko yoon mayul mais un rapport d'audit bu ñu nee da nga koy jox président de la république moom mooy toog apprécier mais bu ñu ko joxee un rapport d'audit mais nañ ko may bàyyi ko ak pouvoir souverain mu apprécier nan lay def ci rapport d'audit boobu mm-hmm. mais du question mm-hmm. un dossier judiciaire la boo xamee ne que nii ah Ousmane mi dañ ko war a topp président toog fële mel ni kuy freiné oto rek teg ci tànkam ñu ñu ñu protéger Ousmane loolu amul et c'est ah kon ma laaj ministre Farba Senghor parce que loolu nekkoon na itam yéen seen combat. Mhm. ci ay jamono ba ko waxee ba tey da ngeen di commencé wax am na ay poursuites. est-ce que ci li maître explique en tant technicien du droit fees na sa bët. Ah, ñun xam nga ñun ñun bañuñu li ñuy wax reddition des que ku luñ la laaj nag nga ko yoree surtout àll réew mi benn góor doon wax sax ne koo jox marché ne ko yow marché bi nu mu demee alalu marché duggi marché. Mm. alors Macky Sall itam ay OFNAC yooyu nga wax yëpp c'est bien mais bale da ngay commencer gis yow tànk su fekkoon ne ah man kat fi mu toll nii li ngeen may jiiñ ne milliards yi am naa ko danaa leen wax ni ma def ba jënd appartement ba appartement ba France. wala jënd appartement États-Unis kon su boobaa ñun du am benn problème dinañ ci ànd. def na déclaration de patrimoine non déclaration dafa yobbu mooy déclarer rek. mais maintenant nañu wax. ci boppam la ko depuis koy def sax amul dara lu ko ko tënk. ànd nañ ci loolu. Mhm. ñun d' nañu ci def na déclaration yomb na rek nga ñëw ne am na nangay milliards. mais bala moo na neex nag. Mhm. mu ne ñu milliards yi man fii laa ko jëlee. loolu lañ bëgg deuxièmement xam nga Karim Wade bi mu jàpp wax nga fi léegi nga ne jàppee wuñ ko détournement jàppee wuñ ko rapport mais Ousmane mhm. da nga wax ne nee na ay dossier la yore mhm. ay rapport yu mu teg tànkam mhm. waaw naka lay mën a tëjee nit ñi ci audition ci ay wax bàyyi ñi nga xam ne ay dossier la yore yu ñuy bind ba signé ko ay inspecteur signé ko yaa ko wax donc loolu tam <laughs> tey na xelu Sénégal yi moo tax Sénégalais yi bugg nag dossier yooyu mu yore noonu mu wax ñu. ñii dafa am ay kumba ndey. kumba yu am ndey. ak ñu amul ndey en tout cas seetlu nañ ne daal ñi daw làqu ci moom moom bu baax yiir na leen laalu leen. non ñooñu yoon na leen setal. te ne ñu ngi leen daan coow fii jamono yoon setal na fekkee moom lañ bëgg a tudd ñu tudd ko non am na non lieu en tout cas yuuxu nañ ko ba tey am na non lieu waaye am na ñeneen am na noo lieu loolu nag li nga waxoon léegi nga ne décision de justice kenn du ko commenté xanaa ñu joxe rek impression d'audience. waaw mën impression yi moom mais nag décision de justice xel. waaye am na ñeneen ñoo xam itam làqu nañ ko ba ba léegi kenn tuddu leen bon li ma lay bëgg mais loolu wane nañ aussi euh, dañu àtte ku def ñu téye ku deful itam mën nañ laa bàyyi nekkul na ku ñëw rek dañ la war a tëj wala. non non euh, dafa am ku ma ndey koo am ndey ak ku ma am. am na ñu bëri ñoo xam ne làqu na ci ñoom. dañu dañoo dem làqu ci ñoom mais dama la bëgg a wax ne la rek. mais ñooñu dañ ne vingt na liste de vingt cinq personnes yoo xamante ne ñu ñu ngi jublu ah, seen biir xam nga loolu tam mooy combat politique moo tax ma ne waa PDS war nañu jóg takku ñu xeex ak gars yi politiquement parce que ministre bi su yégee ne su ma paree ci Karim ci yéen laa jëm. mais ku deful dara kay. mais ku mais non defal naa de ci yéen laa jëm. parce que su fekkoon ne fekkoon ne dafa jaaroon ci yoon. yu <laughs> ñuy jaar ci juridiction yoo xam ne juridiction normal la. su ko defee ñun kenn du wax dara mais CREI bi ñun moom la ñu bañ. dafa am inquisition. yoo xam ne na xam na inquisition xam nga au moins naa ñu doon def. boo defee boo demul moom la soo defee soo deful ñu dagg sa baat. xam naa ko mais loolu moo am wax dëgg yàlla. loolu la loolu la loolu loolu xool bi ñu ñëwee. parce que lii yaakaar naa ku ci def ci rapport d'audit yi. ñun mën nga laaj yóbbu la doo laaj sax yoon mooy xool ne kii. mën na am privilège juridiction parce que ba mu nekkee ministre. la tilimal mais ci lii dañ ne enrichissement illicite foofu moom. créé ma bi dafa contraire moom xam na ko. Mhm. Euh, nu mu tuddati article 163 bis boobu muy wax. Mhm. mooy loi cinquante mooy loi quatre vingt et un cinquante et un. cinquante trois mhm. du 10 juillet. Euh, mille neuf cent mille neuf cent quatre vingt et donc moom xam na ne alors loi boobu dafa ne constaté moment bi ñu ko constaté ci la infraction bi am mooy infraction. comme café instantané. Mhm. instantané. Mhm. mooy moment bi nga xamee ne yow wax nañ la répondre nga bañ a tontu. alors su boobaa <coughs> procureur daal ne voilà yow comme mënoo tontu ci li ma la wax. kon am na. Mhm. mais constitution bi dafa ne yow mi nga xam ne da nga nekkoon ministre wala nga nekkoon premier ministre délit bi nga xam ne def nga ko <coughs> au moment où yaa ngi ko doon liggéey donc déjà dafa am contre mais dama la bëgg a wax ne la. soo gisee ni nga xamee ne noonu la àtte bi demee. dafa bëri ay rëq-rëq yëpp yoo xam nga ne pour la première fois ñu jàpp un détenu un prévenu Karim Wade mu ñëw ñu dóor ko ci box bi dóor mu fekkee moom xam fekkee nam déet waaye dégg na ko ñu dóor ko ci kanam ki nga xam ne alors moom mooy euh, moom mooy euh, président au cour bi gis na tam avocats yi défense yi te xam nga yow la défense est sacrée moom xam na ko loolu ñëpp dañu garantir ne avocat bi nga xam ne mooy le défendeur moom dañ ko war a jox ay àqam mu mu dem xam ne yow mënuloo am avocat yoon daf laa war a wutal avocat ñu jël avocat boobu dàq ko woo militaires yi c'est-à-dire mooy gendarme yi nekkoon ci biir ñu pamte pamtee ko daal koy génne génne ko ci biir xam na ne loolu tam rafetul ci diggante baro bi sax rafetu ci moom bi mu bokk ak si avocat yi ak si et ak si ak suñuy ju ak suñuy jugé. donc est-ce que mais euh, ma fi may cere. dina ñëw hmm? wax nga ne. man dama buggoon laaj ndax incident boobu lu bees la wala danay am souvent ci. non gis na sax aussi assesseur bi. <laughs> attends l'assesseur moo la ko gën a. Ah, assesseur bi Yaxya Yaxya assesseur boobu. <laughs> di ko ci biir procureur soo liggéey sa nawle yow même soo fekkee ne yaay président bi moom mu nekk magistrat mais war na am cër boo koy may ci biir mboolooy mais mu bëgg a wax mu ay yàgg na ko def. mu bàyyi dem daal di génn xam nga loolu dafa defatul te soo seetloo yaxyaa boobu bu njëkk ñi nga xam ne ñoo ñoom la njëkkoon a jël ci CREI yi dañ defoon lan appel d'offre dañ defoon dañ leen woote ne kaay leen yéen ku ci bugg a nekk na bind kayit ne man dama koo bugg a nekk am na sax ñuy wax na topp ñoo ko wax ñu ne euh, kii ndaw moom moo njëkk a bind euh, Macky sàll ne ko damaa bugg nekk am na fi benn CREI bu tëdd fii donc yee ko donc donc ñoom ki seen bopp ñoom ci seen bopp soo ko seetloo ña fa nekk ñëpp yaxyaa boobu si boppam moom dafa ñëw après parce que bii kii njóogu démissionné dañu yéegal Henri moom moo nekkoon premier ki ci kaw dañ ko yéegal ci la ñu dugalee assesseur bi ñu dugg donc mel na ni moom comme xanaa ne bokkatoon ci début ba il faut que gars yi pousse ko mu dem dama la bëgg expliquer ne la Karim Wade bi ni muy doxee ba léegi ak arrestation yi corollaire yi nga xam ne moom la ci moom moom moom moo ki topp parce que non seulement tëj nañ Karim Wade mais booba ba léegi ku yëngatu ci mbedd yi ñu jàpp la mën a tëj li ci kaso bi yow gis nga ko arrestation yi. Mm, mais est-ce que ne dañoo war a garantir sécurité ñu bokk. non dafa am lu ñuy dafa am lu wax. les liberté Sénégal Ablaye Wade bi mu ñëwee dafa jël formaliser bind dans la constitution du Sénégal article 7 ak article 8 article 7 mu ne àqu doomu aadama. sacré dañ ko war a jox ba mu mat sëkk. article 8 ñu bind droit yi nga xam ne yëpp yoo xam ne peut-être que nit ñi suñu eggoon benn niveau ba sax kon duñ ko bind mais ko bind pour leeral ko pour Sénégal yëpp xam ko. donc ñun dañu am liberté yoo xam ne. Mm-hmm. dañ ko bugg a commencé moom dañ ñu def restriction. des libertés des libertés. moo tax sax ñun ñu génne. Mhm. la lutte contre l'oppression pour que ñun tam ñu war a xeex. jàkkaarloo ñooñu pour nangu suñu liberté. Moussa parce que liberté kenn du ko maye parce que projet bi ñu bëri jàppoon nañ ne bu fi jàllee peut-être mën na am lu mu wàññi suñu justice maître wax wane na ne justice rendre na te am na séparation des pouvoirs. Mm. ñi jàppoon ne bu ñëwee peut-être na lu fi mën a wàññi. yéen tam ñu ne ngi défendre ne ba tey jii démocratie mu ngi dox mais ministre Farba Senghor mu ngi souligner ay cas yoo xamante ne dafa constaté ne restriction de liberté mu ngi tàmbalee ñëw recul boobu aussi est-ce que amu leen ci tiitaange non man je pense que <coughs> boo xoolee boo demee heure bi nga def sa sondage bu ndaw Sénégal amul kenn ku lay wax ne <coughs> man sama liberté dama ci gis loo xam ne daf may commencer tiital au contraire ñoom bu ñu nekkee ci pouvoir bi ñu bëri Sénégal. Ah, ay cadre eh, eh, rupture amul rupture. ay cadre yu non rupture rupture mooy. en tout cas liberté. liberté moom liberté ci sama gis-gis dañ ko dooleel Sénégal. droit dañ ko dooleel Sénégal procès bi dafa dooleel suñu république ak suñu droit ak suñu justice te kii wax na ko sànq. mais est-ce que kii doy na pour ñu wax justice pour tous est-ce que bii rek kenn nit kii dina ko mën a. xam nga. bu leen contextualiser affaire bi dañu juger benn prévenu moom la ñuy wax ci rajo yëpp quoi mais suba justice bi mu ngi liggéey ginnaaw suba mu ngi liggéey am na yeneen sénégalais aussi yoo xam ne xam nga moom wax na kumba amul nday xaw mais en tout cas Karim am na ndey am na papa moom papam ex président de la république taxaw na fii ne du nangu ñu condamné doomam xam nga loolu quand même est-ce que gis nga sénégalais mu am sañ-sañ toog ci mbedd mi naan man du ma nangu ñu condamné sama doom. du ma nangu CREI condamné sama doom. en tout cas dafa ne du nangu. CREI condamné doom non mais attends. suñu juridiction la. boo xam ne Ablaye Wade juriste la. fekk na ko fii mosu ko en tout cas mosul wax ne euh, juridiction bi baaxul ñu ngi jugé doomam mu ne du nangu ñu condamné ko mais heure bi boo xëyee Kolda ci sama département am na ñoo xam ne seen doom mu ngi fële ci kaso bi métti parce que da ngay dégg sax ñu téye nit ñu ne ah yaayam reerul ah ñu bari bu ñu tejee seen doom du ñu reer ah mais justice kenn du ko boole ak émotion justice c'est le droit dañu am charte waa ji dafay ñëw liir charte yi ñu mën lii la te man d'accord naa li mu wax xam nga bu doon dañu commencé ci mille milliards ñu yokk ko deux mille ñu ne ah ñi kat dañu bëgg a suuxal Karim et mais bu ñu commencé di liggéey te ñu def seen liggéey ni mu waree mais dañu gis li baaxul yëpp ñu ne hé lii nag dañ ko dindi lii baaxul bu ñëwoon ba zéro day ñëw ba zéro mais dafa am fu mu yem bu ñu gisee sac loo xam ne bu ñu ko waxee sax ñu nga ñi ko tuuti ñu dindi ko mm-hmm. mais ba tey 69 milliards quand même Sénégal doomu Sénégalais non du soixante deux milliards la. Mm-hmm. moom la am la am. Mm-hmm. gis nga patrimoine bi quatre milliards la. waaw la kii wax. <laughs> te quatre milliards yi sax lu bëree ngi ci loo xam ne waru cee nekk. bu doon milliard sax. bu doon milliard sax defe naa sax xaymaa nañu. loolu àll jàmbur lañ li mu li mu gagné li mm-hmm. li mu liggéey yëpp cinq cent quarante millions. de loolu la waroon donc je pense que bu bu doon milliard euh, sax. bu doon sax un million de plus war nañ la laaj. donc Sénégal ñun dañu foog ne heure bi nii. liberté mu ngi yokk te ñoom politique xam nga dañuy wax procès bi dafa politique et mm-hmm. te boo xoolee ñoom ci frontière u procès bi rek la ñu nekk mm-hmm. maanaam ci action marginale yi doon nañ ko ci tànk bi mm-hmm. def def nañ ko li mais kenn du dem ba ci biir di la naan lii ak lii moo amul non ñoom ñu ngi ci frontière te ñu mëngale seen agenda politique ak procès bi ñu xaar ba ñu xam ne CREI yi dañu fixe ne jour bale mooy verdict bi ci diggante bi ñu ne Karim mooy seen ñu woote seen congrès ñu ne Karim mooy seen candidat. maanaam léegi. te am nañ ci sañ-sañ aussi. am nañ ci sañ-sañ. Mhm. mais en tout cas ñu ci bëggoon. te comme ça bu ñuy condamné du ñu condamné Karim Kese dañu condamné le candidat. du PDS mhm. te gis naa sax ñoom léegi dañu bëri candidat. Mhm. parce que am na gis naa ñu leen ci seen boor ñu ne ñoom daal kenn du leen tere nekk candidat. <laughs> mais en tout cas politiquement. je veux dire euh, euh, nañu sénégale yi. man maa ngi leen di gërëm. di leen féliciter ci seen comportement. d'accord parce que quand même. intérêt privé doomu jàmbur warul tax ñu rey fii benn sénégalais ci loo xam ne euh, en tout cas ci ci liñ ko sukkandiku ci dara. parce que euh, on pays de droit. Mm. justice bi mu ngi liggéey. am sénégalais chaque jour ñu leen jàpp ñu leen def mag Thiès mag mhm. Kolda mag et cetera jàpp nañ Karim Wade mhm. jugé nañ ko tribunal atte na ñoom am nañu voie de recours nañu xool droit bi ñu jaar yoon li mu leen may mhm. ba ñu pare ci doom ñu nekk ci pays de euh, justice ñu en restant dans la république Moussa Baldé maa ngi lay gërëm di la sant maître Pape Sène maa ngi lay gërëm di la sant ministre Farba Senghor maa ngi lay gërëm di la sant di fàttali nag ne Cheikh Sadibou Fall waroon na fee ñëw mais peut-être dafa am gàllankoor ni ki maître Adama Fall aussi bokk ci PDS moom itam dafa am gàllankoor ñu ngi leen koy itam comprendre ba pare di leen gërëm di leen sant yéen ñi teew ci plateau bi di gërëm di sant ñi ñu doon teewlu itam di gërëm di sant Oustaz Assane Diouf Diane Ndiaye Ama Gueye Cheikh euh, Tidiane Diop ñoom ñoo nekkoon ci régie bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daje alxames incha allah ci beneen débat diine ak jamono wasalaam